aljamaa ci mbooloo bu far bi julli farata xëy jumaatin farata yoo xam ne du jumaa ndax bu dee jumaa mu sàrt la ca mu ne kon mbooloo moomu julli ci mbooloo moomu julli farata yoo xam ne du jumaa sunna ci sunna la waaye wala fabari de ci gëral de mbooloo maanaam boo jullee ci mbooloo nga ñëw fekk ci mbooloo mu ko gën a bari doo ca baamu waaye li may xamal naka dana am fadluha nga ne mbooloo bi rek ak ci benn rakka bu fekkee ne mbooloo bi julli nañu nga ñëw fekk ñu def benn rakka nga kabar ak na ñoom rakk boobu am na mel ni daal mbooloo ñu ko ko tàmbali woon ak liman amee wala ñu ko ko fee liman ñeen koo xam ne lam ñu xasil amruhu nga ne mbooloo nañu ay def lu baamoot nga ne ko fi amul nga ne mbooloo mooy kan ci julli moom doom bu ne ak lu sàlli nag ay julli li sa biir ànd ak xale xale bu amagul bàkkaar julli waaye bu ko mën la ànd ak julli sax xool bi dañ boole waaye la bra atin ci sa génn jigéen de su kenn jigéen bu mag la moom nga xam ne faratu ci moom julli bi boo jullee ànd ak moom am na nga ne la mbooloo dootoo baamu bu bu baamu nag mu mi dan mbir moo di aji boyal mbiram maanaam jooyal ko fiisali ko ci yàlla rek maanaam wakiilu ci yàlla daal moo xam li gën bu ci gën ak bu mu ciy nangu ma am moom ma moomal mbir muy ma moom ñu ngi waaye su jiwte waatee ñeneen day jileem yàqu nga julli ba noppi ñu ah waaye yow baabu waaye jiwte waat ñu naan ko ci nangu ko defee ko defee rek dañ ko julli yàqu ñoom ñëpp xam nga léegi nga julli woon ba noppi nga julli woon ba noppi nga ñëw sàkk nga nga julli woon yow maa moom wala yow faj wala mbooloo nga ñëw meneen mbooloo bëgg nga jiitewaat yéen wala kenn ku bëgg mel ni jigéen nga xam ne bu xamul fi lay jullee fonk jullee bëgg nga jiite ko man bu ma kon fàtte yow bu ko jiite nga tari fàtte xëy na lu mel noonu tax fekk nag yaa jiite woon kenn bu doon kenn nga jiite woon wala mbooloo dégg nga doo ko doo ko mën a baamu.
waaye su dee maamu mu mën a gën waaw. waaw waaye maamu mi tamit am na nga ne leen mbooloo ndax gannaaw topp na ci kenn topp na ci imaam bi ñoom ñaar dañu daal di nekk mbooloo maanaam bu nekkoon sëg ndax dañ koo santul mu mu mu julliwaat kenn sant ko ko mu defaat ko nag def bu baaxul waaw ndax bu fekkoonte ne itam dafa nekk ci charte yu baamu mu ñëw fekk mbool mu julloon moom dong mu ñëw fekk mbooloo di julli ba tey ñu mu waxoon ni mu foog ban day jóoyal jóom ci yàlla ndax xamul bu jëkk it nangu nañ ko moom lañ gën a nangu sax ba ci biir wala déet mu ne nag wala ma awaaxidin donte kenn la àndoon itam waaye dama wax ne ñun ñun timis dana maanaam dana baamu lu timis timis moom bu julee yow doom di ko fekk ñaari wàllu yow ak benn aalima ak benn aabit ak benn taqi mu julli ànd ak gim ñi itam doo mën a baamuwaat ndax kon si timis njëkk jë day mel ni naa fi te tere woon nañ diggante takk saan takk timis mu ne kamaxar bi naka ka ashaay naka noonu gars yi itam baada witri te daa ishan moo ci wax ñu ñu asur fekkee ne xam nga wetre dootoo baamuwaat fay na aada nem baamu na wala mu yàq te fasumu ko ko xatt amu dagg bu ko fàttalikoo mu ne ko julli woon na wala day baamu xam nañ ko wax nañ wax ko ko mu daal di def ci julli wa illaa fekk na dogul shafa na tollanti na mot li ñaari rakka muy naa fi def kooku de xanaa borom isaaw bi rek lay wax nag bor ma alima wasallama qablahu wa xal bi istirai bi dalika وإن أقام المغرب سهوا مع الإمام وافتكر أنه صلاها خبزا قبل سلامه فلو سلم منها قبل تذكره أتى وجوب الباب أشد القرب ba tey loolu lépp waxtaliku day daw naafile bi diggante taksan ak gée mooy mu ne fa in aada ngeen baamu nag di jër ne na ba baamu tere woon nañ ko bul baamu mu dem baamu wala muy ak te fasu waaye mu fàttali ko nag te fasagul wala mu xam ko wala ñu wax ko ko ak nu mu ko mën a xam ne te fasagul ru ko xasa amul dagg wa illaa su fekkee ne dugul ba fas rakka rakka bi fas na wa illaa su fekkee ne rakka bi fasu na chefa mu tollanti ñaar def ko muy naafile wayin atam na loolu su fekkee ne ba muy kii na acha wayin atam su fekkee ne mottali na wala sàllama doon ci sëlmaloo ne it ataa mu dikk bi raadi su fekkee ne timis la léegi mu mu bañ a dog ndax fas na rakka mu ñaareel sëlmalul indi ñetteel muy tibb si juma day yokk beneen rakka muy ñaari naafila ñaar ñeenti rakka naafila nga ne ko xanaa ba def fekk sëlmalu bu mu ne wala sàllam kon demoon na ba ne asalaamaaleykum dal di xam ne moom kat baamu na te tere nañu woon ku baamu timis mu dal di yéene mottali naafila kabaraat julli rakka sëlmal wa asalaam dégluwaat
gis nga gis daal moom ay def naa ko bëri moom wér na.
waaw bële wéy na ndax bële moom dañ ko dañoo tere woon mu baamuwaat wala dafa war a julli bi kon baam moom dafa mel ne dafa taxaw taxawaayu naafila im xal mu ne nag ba muy sëlmal di indi ñeenteel kat im xal ba ndem jegeñ na mu ne waa aada ba baamoot na mu tam mun aji roy muidin di muidin ci aji baamu salaatahu julleem nga abadan faw nga julli waat de waaw julli gi yàqu na ki nga xam ne julli woon ba noppi day baamu nga ñëw roy ci moom julli yàqu na ndax li ma waxoon dafa mel ne naafila baabu dafa mel ne naafila mu ne waaw aada baamut mu tam mun aju roy bi mu ay lim ci aju baamu abadan faw lu baamu wax rek ndax julli gaa yàqu asbaaban dir mu ñuy way wéet ñoom ci lañ way baam muftaridun wala yasihu fardun xalfa sufi nafli xaala kaw ñu tam asbaaban bu ñu dee ay bu ñu dee baam la léegi du kenn dañu ñëw fekk ilimaan bi di julli ñun ñu daje fi kenn ku nekk julli woon na ñu war a baamu dëkkati ilimaan bi day baamu xam nga suñu julli yàqu na bu dee baamu kenn du jiite mooy waa ada baamoot na mu tam aju rek ñu koy jël koo xam dafa roy ci aji baamu abadan faw afzadan bu ñu day mbooloo bu ñu day bu béykat kenn ku nekk julli waaye te bañ a naan dem na adamu lu laa ñàkk julli bi njëkk ga dégg nga gan dafa jàppoon ne julli woon na moom kenn wala mu julli woon ak xaleel ay xaleel wala benn xaleel bari bari baamu gannaaw gi mu bir na nag julliwul woon sax ñu nga inta bàyyeen lim bir ne adamu lu la ñàkk julli bu njëkk ga aw fasaadu ha wala yàqoom wala julli woon sax waaye julli ga baaxul ndax matal woon sart julli ñi wala defoon na lu yàq julli ajza kon gii gay ndax léegi ba mu xam ne bu njëkk yàqu na wala mu xam ne bu njëkk bu julli ko woon léegi day julli dootu baamu koy jox wala yu taan bi fu yàggal rukkoo nag rukkoo ñu daa xilil ñeel aji tam ji nga tari fatiha ak saar ba tey say moom rukkoo benn waaye di ñëw nga ne ah gannaaw bu ma xasee ba siggi kat dootu am rakkaa bi wala muy rakkaa bu mujj nga yéene ko nga yéenal mbooloo li wala muy koo xam ne da nga ne xamul attey jullee wala yooyu nga yàgg ci rukkoo bi ngir mu ñëw ba kàbbat ba rukkoo fekk si ba soog mu ne moom lay tere mu ne xam nga dafa daw si dafa daw si.
ah maanaam léeg-léeg.
am na fu ñu koy defee dina la ko daw si daf si kii.
ah si daf si mën nañu daw bu duggee jaati di daw di gaaw pour dab rakk.
ah daw boobu itam tere nañ ko ngay wax rek Wala waaye nag fekkee ne waa ji moom daw boo ko négul mu dóor la da nga koy nekk léeg-léeg daw boobu nga yóbbu ci ilimaan bi mu ngi xaw a nigaat.
li xaw a ndigal ah waaye nag loolu am na fu ñu ko war a def fu ñu ko warul def léegi daal boo xamee ni moom ab jóofa ngi ñëw bu defee ca rakka bi te boo si jéegat dana la ngàdd wala mu tëj la nga taxaw jeexal ko
yéen nga comme comme kii comme maanaam maanaam bu dee bu dee bu dee jàng waaw bu dee jàng mu xaaral kii bi waaw kooku moom la lañ ko bu fekkente ne defuñu ci biir ci biir njàng ko masalan nga jàng saar jàng wi dañu ko féete kaw
ndax kii bi ki nga xam ne dafay julli doon baam jàngoon nañu ne da ngay yéene xëy bala nga yéene baam wala nga yéene jox léegi ñu yéene baamu ci jëm dem ba ci biir njëkk ñi li gëm bu njëkk la wérul wala baaxul baaxul woon ndax suñ baa yéene baamu gox ñu yéene woon mooy continuer dana ko doy jox dërëm
bu fekkente ne dafa toll ci benn rakka bu ñaareel kabar doogu ci jox mu ne wa it tabayyana adamu lula aw fasaaduha ajzaat mu doy waaw waaw waxoon nañu ko wala yutaalu وإن تبين سبب الوفاة وظن أنه بيان فالظن يفقد شرط الأمور في الإسلام في الإسلام ثالث إن والفرد أي تفريضا فكان في يلي والفرد ولا وهل فكان يلي والفرد ولا ni waxe won bu fogg itam chaque ñu waxon rek bu fekkee ne yéeneen ko dana baax bi bu dul loolu nag mu ne bu yéene na daal dafa doy aleykum salaam mu ne walaayu taal bi su yàggal rek ko undu koo di gaaxi ni ñu aji tàmbi si al imaamu imaam raatibu te da aji sax di jiite ci jàkkaar te jamaat yi mel ni mbooloo bu jullee moom dong it mel na julli mbooloo julli na fi kon beneen mbooloo dootu fi da mbooloo ci julli walaa tubtada'u te fu tàmbalee salaatu julli baa doon liqaam gannaaw liqaam bu ñu kasee ba liqaam boo ñëw si kàmbar bi yeneen julli bu bokk nag bu ñu ñëw ci fekkee ni imaam bi taxaw na ba ci liqaam ñu ngi koy liqaamal nga kàmbare ba sax dootoo fi taxaw beneen julli donte su julli fajar la dañu doon def ci biti waaw
bu mbooloo bi ñëwee fekk Iliwaas si woon ñu mbooloo ñu tuddee jàkk kenn ku ne julli si bi dañ koy déglu si moom.
ñun suñu benn sax rek moom nee na noonee yooyu ba pour daal ne kii bi dina ba noppi ñu ne mbooloo ñëw ci digg bu ko defee dañuy dundal ne di nga mbooloo mais dafa ne doyul wala ñi dañoo bëgg a sos seen kii bopp daal mu indi ay wuute ki ci daal ci biir jàkka dañuy bëri jàkka daal dañoo bëgg xol yëpp nekk benn bu fekkente ni daal administratif bi julli na même bu fekkee ne moom dong na sax kenn topp ci moom itam bu ñëwee ku ñëwati da ngay julli sa julli bopp waaye dootul ci àndal ba dootul dootul bari mu tuddee fii.
waaw loolu mu fekk mu sëlmal ñu laaj ba xam dund nañ ba noppi.
waaw kenn daal jërëjëf dégg nga suñu tool bi foofu.
waaw
loolu moom day mat dégg nga su fekkee ne xaamalaa ci julli bi boobu te du doon jëm ci salaat bi ma nekk ci biir julli bëre ñu xaamal ci imaam yaa ci bi xasa amul dog ñu xas yoon même ragal ñu xawaat la aussi ñu fas ñu faat benn yaakaar dégg nga ko de.
loolu nag xanaa comme moom du bokkul mu fekk mu fekk muy fay julli Hmm?
du fekk bokkul mu fekk muy fay julli julli farat ah bu fekkee ne day fay dafa waroon a génn ah d'accord dafa waroon génn dafa waroon génn wala mu dem ba nga xam ne bopp dana xaw na nag génn bu fekkente ne dëgg na ne loolu it ñun dana am julli waaye nag waru ko wa illa mu ne su fekkee ne ragalul faatu rakka léegi wóor na ba laaj benn rakka du ko raw rakka bi du ko raw atam ma waaw dafa taxawal jigéen ba noppi moom dañoo yaqaamal li ma ñu daa tëdd parce que dañoo julli mu xam ne xam nga li ma ñu daa tëdd bi ñu koy yaqaamal fekk na moom mu julli fekk na moom mu kàbbar ba julli kàbbar ba julli.
foofu wute naa li ma ñu daa tëdd bi ñu ñu yaqaamal ko ba noppi nga bëgg a sos Sos geneen julli waaw kooku dañu koy juróom su fekkee ne noonu passé quatre personnes boo illaa su fekkee nga dem atama moo ci naafila di naafila ga fa far bi wala farata xayraha na fekk muy beneen farata bu dul bii julli ñu nekk xam nekk
wa illaa maanaam su fekkente ne moom du julli bi nga xam ne moom lay mottali nekkul naafila muy beneen farata maanaam dafa doon julli tisbaar ñu ratib ñu iqaama ratib ji boobu mooy wa illa julli wa illa julli ji kooku insarafa mu sotti ko ci fay ci ci aju ñetteel ja kon chaque ba tey li mu wutee li nga doon wax mooy la bu ñuy liqaamal raatib bi fekk na ko si julli xam nga kon dafa daal di mel ni daanaka ci naan la la nekk bu nekkee si jeneen farata bu amee ñaar bu fekkente ne am na benn rakka wala ñett ñaar mu ñaar bu fekk am na ñetti rakka mu ñeenteel que loola ni ki aji njëkk ja mel na mel na rakka bu njëkk ba fay soowaab même bu fekkee ne ci rakka bu njëkk ba la ko fekk maanaam day ñaareel mu nekk waaw nekk waaye in aq in aq daxaa ne fas na ko su ko fasul mu bàyyi fasagul rakka wal qat u dagg gi islaam yi ci sëlmal lay ànde benn muy sëlmal aw munaafi wala loo xam ne du dàqoon teg julli li wax ñu dafa wax wala mu walbatiku bañ a jubloo ci penku wala mu jógee fee daal di dox di dox ni mu war a doxee bu nekk woon ci julli ba ñëw jël place ci sàppe yi daal di kàbb loo xam daal dàqoo naan wala mu lekk wala mu naan wala mu lekk naan wax ñun amun naa seen jël waaw loo xam ne dafa dàqoon ca julli xam ne day tax julli wa illaa su fekkee ne sëlmalul ci julli bi nga xam ne ci la nekk mu fas yéene roy nag te njëkkoon a kàbbar mu njëkkoon a roy mu bëgg a roy nag ci limaam yi raatib bi ah da day baamu amul julli ndax royul julliwul di aji wéer wayu qiimat ndem taxawale fat na julli bi ñu julli ci jàkka ala muhassini fadli ci aji amal ji ngëneel koo xam ne julli woon na ak mbooloo ba noppi ba wóor te mbir moom waa ji bii mu nekk ci biir xaaral nga ne mu ci génn génn ji wayu qiimat wayu qiimat su fekkee ne dañoo maanaam taxawal maanaam liqaamal imaam raatib bi mas bi ci jàkka wala béréb yoo xam ne dañ ci fas yéene fas yéene jullee fekk fa nit koo xam ne julli woon naa mbooloo ba noppi maanaam mooy ala muhasin fadli ci aji amal ji ngëneelal mbooloo ci julli julli woon na ci mbooloo te waxu woon te mbir moom jëm leen julli mu nekk ci biir jàkka ji xaraja na ne moo ci génn ci jàkka ji jëf na du leen waxoon nañ ne ngëneel bu gë kii ngëneel mbooloo mbooloo du gënante ba boo julliwoon rek benn waay rek sax wala benn jigéen moom tamul nag dootoo moom ba mbooloo baamooti ci mbooloo léegi kon waa ji julliwoon na am mbooloo ba noppi ak mbooloo la julliwoon xëy na dafa fekk ci bérébu jullikaay bi ñooy nga dese benn rakkaar mu ànd ñoom rakkaar bi xam nga am na ngëneel ak mbooloo mu ko nag di mottali léegi ilimaani raatib dinañ ñëw ñu kabaral ko ñu xamal ko duutu mën a ànd ak moom mu ne bu ànd ak moom bu ko royee du maam mu du imaam dafa war a génn day mel ne ko njàppam yàqu mu ne nii tëddee bakkanam génn génn njàkk ja ndax xam nga du fa mën a nekk ba noppi di julli gëneen julli bokk la di ilimaan di julli bu fi nekk di naafila amoon na ngëneel bu mën a roy kii bi ndax amoon na ngëneel mbooloo ba noppi waaw mu ne xarase waa jooju de day génn naa waaw mën a mu ban waajib la maanaam ak génn mu ne wala bu ñu sànnihaa te du ko julli maanaam du ko mën a julli ànd ak moom wala xayra haa du mën a julli gëneen julli ndax taxawalal nañu imaam raatib wa illaa su fekkee amul woon gëneelal mbooloo moom dafa julli woon ñun donc lazimat fukk war ko julli jiw ñu iqaamal ak maam ak imaam mafhum mu ne nag kaman lam yusalliha nit ki nga xam ne julli wu ko woon bi baytihi ah maanaam daf koy war ñi nga xam ne rek du ko julli woon mu ne wa bi baytihi bu fekkee ne ci néegam la maanaam dañoo tax liqaamalal imaam muraati bi fekk moom mu armaloon te nekk ci néegam yu timmuha dana motal julleem ak yeneen farata ba batalat yàqoot ne julli def si daa yi ci roy yi mën ci koo xam ne baana jur na kaafiran di yéefar est-ce que yéefar dina julli
warul julli warul julli
mën na nekk wala mënul nekk mën na nekk wala mënul nekk mën na nekk mën na nekk d'accord naa ci ne mën na nekk waaye na muy nekk am yéefar la muy julli
waaw nekk boo xam ne daa ragal wane kéefar ngir bañ muy naan waaw ñu am trois bu la fan rek mos na ko rek
Hmm.
pour ñu julli mu tax kol kol daraam moom ñu koy bu sol kol daraam daal ñu ngi yëre ci yam ñu Dara.
ngi boobu di wax ah dal di julli gàmm gàmm waaw
waaye tuubul na dafa julli rek
te xam na ne buñ ko sant julli mu bañ ba benn rakk si yor ko jiite mu dem rek foofu mu julli kooku
xam nga kooku bu xasee nangu ah bu dafa am foo xam ne bu fa tolloo nag bu bañee bu na bu tuubee dootuñu ko nangu kooku moom dañ koy rey dañ ko bàyyi mu julli xam nga waaw xam nga man xëy na maa xaar si waa daal il faut que gën a yëngu daanaka kenn ku ne mu koy atee بس تشتغل من ولا ما لك مثل ليس يقبل ولو كان عندهم مقال قال يخاف ما لك مثل ليس يقبل بين ركعات من غير ما من غير ما فاعل فاتحة ولا احتلال ومن قبل يسون الأمين بلا مكان وبعدين كل باي بوم دس وقت ضرورة فكان بين ركعات السنة léegi ñu daal di koy rey kooku ñaari atte la am benn dafa weddi ne julli amul warul wala mu ne julli war na waaye mu nanguwul a julli am na lu mu jàpp ba ne du julli daal mu ne xëy na mu ne bàyyi fan laa wala lu mu wax daal ba ne ba mu tee koo julli baañ ko rek waaye ndax ñoo bokk atte atte ki murtad bi mooy ki weddi julli ki nangu julli bi nag buñ ko reyee julli te kon daañu ko jëfal waaw yooyu yëpp waaw des na des na aw na atam wala jigéen aw xonsa wala xonsa muskilan mu di aji lënt xonsa mooy ko nekkul góor nekkul jigéen kooku it xam nga ay daraja la mën na nekk xayru muskil xonsa ba nag xayru muskil waaye daañu xam ne góor la gën jege atte góor lañ ko wax wala jigéen la gën jege atte jigéen lañ koy jox xonsa muskil nag mooy xonsa muskil mooy ki nga xam ne moom xamuñu moom amul fenn fu mu ci gën a ñu dafa lënt daal kooku moom la boole jigéen ak yéefar ne bu fekkente ne roy nga ci ñoom ci julli ba ñu sëlmal nga tax nga dem ba gannaaw gi lu mu yàgg-yàgg nga dem ba xam ne waa ji kat du woon julli wala jigéen la ki nga doon roy kat jigéen la woon wala xun fa muskil la aw ma noonu wala def aw faasiqan du farat wala faasiq faasiq nag bi jaari xasin faasiq bi di àttiqaadi am na faasiq bi jaariha am na bi jaariha faasiq boo xam ne bi jaariha ci ci cër maanaam ci jëfam di jëfi jëfi cër nit ku moy wala kuy naan sàngal ñu mën xadis ay nit ku si faasiq la yasbiq lahu tamit si xam sa xalfa kama ci faasiq bi zalam yata'allaq fisquhu bi salaati wa illa fala loolu sax mu xaw a gën a nuru bokk kii bi mu gën a nuru fekkente ne boo fisq bi muy def ak ñun ci maanaam laalu mbiru julli sib nañ nga roy ci waaye boo ci réer dana jëf léeg-léeg faas ko mën nañ ko bañ a xam itam ñu wut faas ko bi jaaree xam ne ñu jëfandikoo loo xam ne xaraam na ñu di ko jëfe waaye sax aqida mooy ñi nga xam ne ci mbirum tawxid ci seen pas-pasi tawxid te ci pas-pas yooyu ñu dàq moom la fas benn kooku moom dafa jëlee kéefër am na si sax boo xam ne moom far far saaxiib boobu benn tey taawil taawil boo xam ne bu jàng la nit nga ne kalaamullaahi maxluuq nit muxtasili kalaamullaahi maxluuq nit muy muxtasili ñu murji ay ñu rawaafid yi ñu qadar yi ñun ñëpp bida ay yoon mooy xaar bokk na ci bida ak bokk na ci fisq muxtasili ñoom dañu sukkandikoo xel ñoom ñu tuddee seen bopp ñu ñooy ahlul adl wa tawxid ñu ne ñoom rek ñoo teg suñu borom ci place bi nga xam ne mooy place maanu ba noppi boole ko wéetal ko lu ñu wuute wootee loolu moo di ne ñi ci des dañu jàpp ne yàlla moo dogal lépp te yàlla mënul tere nit ki ba noppi jafewaa ko ko ba noppi di ko mbugal pour ñoom nit ki kon lu mu def ci coobareem la lu dogalu yàlla pour ñoom yàlla bi mu sàkkee nit ki sàkkal ko xel ak kàttan digal ko tere ko jeex na li ci def yépp mu ngi aju ci coobare loolu wax tëj léegi ñoom bokk na ci seen profession de foi al mansilatu bayna al mansilatayn pour ñoom jullit moom mooy mooy bu mag comme mooy wala naan sàngara wala yooyu dootoo jullit doo yëfa منزلة منزلتك بين المنزلتين بين المنزلة المنزلة إيه المنزلة بين المنزلتين لولو وثنا قلاتو أهل السنة وبر pour ñoom nee ñu bu fekkoon ne yàlla dafay def lu ko soob rek kon duñ mën ne commande la ah pour ñoom daal sàkkal nañu yàlla ay reeral fu mu war a jaar ba nee ñu nit ki li gën ci moom rek yàlla war na ci moom maanaam yajibu alallaahi muraatul aslah li ibaadihi nit ku nekk rek yàlla war na la gën ci yow mu def ko ci yow waaw mu ne war na ci moom mujjee yi ñoom ñoo ne saalix ak taalix amul coobaral yàlla rek am yowmal xiyaama ko neex yàlla mu yóbbu àjjana ko neex mu yóbbu safara mbiri daal al umuru turja'u maanaam tuawalu ila mashiatillahi maanaam al umuru kulluha mufawwadatun ila mashiatillahi wala tazharu illa fi yawmi alqiyamati moo yàlla xam kii ngëmam dëgër kii ngëmam dëgëru faas ak yooyu yëpp nit ñi mënuñu ko xam ci baax ak ku bon ci dem àjjana ci dem àjjana ci jëfal ci jëful ci mooy ci mooy yëpp amul amul benn taasir ñu moom ñu daal benn atte lañ doon dogal ne lépp dañuy bàyyi ba yëngal xel ñu mur gi ay ñu itam dàq nañu leen set nañu suñu xadar yi yone ñu xam ne pour ñoom jegaan foofu muxtasile ndax ñoom wedd gi ñu weddi qadar dogal yàlla moo tax ñu tuddee qadar yi rawaati ni ñoom ñoo dàq Aboubacar ak Umar saxal Ali ñoom ñu ngi bokk ci extrémiste yi chia yi chia yi itam bari nañu ñoom itam ay kii ay firaq nag Ismaïl yoon yi Zeydi yoon yi Awandi yoon yi isna achari yoone yi ila axiri waaye ñoom ñëpp génn nañu ahlu sunna ahlu sunna si daal aima yi abu xanifa malik shafi ahmad lawzaa'i laysu bin saad mohamad ibnu jarir altabari demoon ne ba ne àgg na ci garaje nekk mujtahid andi ba ay topp topp ñu ko topp ñoom ak mujtahid dañuy wax mujtahid mutlaq la ñu mujtahid muqayyad doomu aadama jullit yi topp nañu gannaaw noonu ci bu ñu génnee ci mbiri tawxid ba ci mbiri tawxid sax ba tey lachaar yi la ne abul hasan al ashari ak junayd daañu leen boole ci aima yi lachaar yi ci taawil parce que ahlu sunnati xanaa bi lay ñun nangu ñu taawil dara ñetti xadis rek lañ mës a taawil te xadis yi nga xam ne kenn mënu ko bañ a taawil waaye ñoom dañu dàq taawil kuy taawil sax dañ leen daan bëgg a teg faasiq achaira yi ñoom ñoo gën a jàng jëm ci taawil ñun am nañ yoo xam ne nee ñu kenn mënu koo jël à la lettre bañ koo taawil ndax kon du dagal dañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal xiyaam borom tabaraka wa taala ne tibb ci moykat yi sotti safara safara naan dolli dolli dolli mu tibb di ko jox di tibb di ko jox mu naan dolli ba ñu war a dem safara jeex mu ne doon doon suñu borom tabaraka wa taala ko tànk ndeyjooram kon nii ci safara bi ak shaar kal jildi kon xat xat xat xat xat naan doy na doy na doy na doy na ñaram ko de degoo nga sànni ci taal mu ne tànk xadis yi ñu saxalal suñu borom ak azza wa jalla tànk waaye dañ koy taawil ne ko noonu kii masala istiwa o استوى على العرش ولا ما يحمل الإمام مالك من ينقل هذا الفن الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال بدعة والإيمان به واجب الإمام مالك واخ أشاعرة ينقل تعبير بيته قد استوى قد استوى بشر على العراق من غير من غير سيف ودم مهراق استواء جبلون ci jëm ji toog li nga xamee ci toog ci jëm ci kaw seet kaw turam maanaam foto maanaam foto sëñ bu mooy kursi yu wax ñu ne suñu borom defal ci sa waaye arsh la wax nag ci maanaa ni boor bi di def istiwaaw ci réew rek qad istawa bishrun ala al iraq dina ay saydi wala bi waaye tay boobu di ko tay xanaa bi lay ñoom mer nañ ci mais ñun nan fas ne rek suñu borom def na istiwaaw ci arsh ci kam nam yàlla ci moom xamul nag nam ko ba tey nag ñoom it yaar nañu yàlla ci li ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom keroogee ci ndeyjooram ba noppi ne ñaari bëtam yëpp ndeyjoor yadullahi waxam loolu fi kola fi digg bal ya daamu seetu tànn quran bi saxalee cër yooyu yëpp suñu borom ay mu awalaat la achaire yi taawil nañ ko taawil yu rafet xanaa bi lay bañ nañ ko taawil ñoom ñu gën a bari ci salaf saalix yi mu'tazila yi ñoom taawil nañu ñenn nag ci xanaa bi lay ñu ngi dal ci kaw achaire yi ci ne dañoo xaw a niroog muxtasili ndax dañoo dañoo dañuy taawil abul hasan al ashari kii la woon muxtasili la woon bu njëkk kon naa gi mu toog nëbbu ci këram tëju weer ak fukki fan mu génne mu ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu génne ko ci ihtisar mu génne dem si jàkka jëkk xam nga dañu ne woon yëpp génn ñu doon ci madhabu ictisal ictisal nga xam ne dañuy xel ak falsafa génn ci basab ci dellu na léegi ñu ngi ci madhabu imam ahmad ibn hanbal nga xam ne mooy madhabu salaf salih teewul nag ñu gis yenn yoo xam ne mun koo ñàkk a taayu mun ko taayu ñu alxajar la sot yebinu laay fi ardi xanaa bi lay taayu nañ ko ndax buñ ñëwee fekk xajar la sot loolu ca kaaba ko mu di doj kenn mënul nekk kii loxo suñu borom xaw ni taawil ko استوى على العرش ولا ما يحمل الجبال الإمام مالك من كل هذا الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال بدعة والإيمان به واجب الإمام مالك واحد أشاعري بين كل تعويل ميت قد استوى قد استوى بشر على العراق من غير من غير سيف ودم مهراق استواء جبلو في جبل دي توب من خامي في توب في جبل تكو سيف كو ترم نانا فوتي فوتي سيف بو موي كرسيو واخو دي نك سن بون دي استوى عرش لن واخ nak ci maanaa ni boor bi di def istiwaaw ci réew rek qad istawa bishrun ala al iraq min ghayri sayfin wa damin waaye taawil boobu ñu ko taawil xanaa bi lay ñoom mer nañ ci mais ñun nan fas ni rek suñu borom def na istiwaaw ci ci ars te kam nam yàlla ci moom xamul nag ñoom ba tey nag ñoom it jaar nañu yàlla ci ñu fi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom keroogee ci ndey jooram noppi ne ñaari gëtam yëpp ndey jooram yemulaay moo xam loolu suñu la suñu borom yi bañ a gaaw mu seetu tamit alquran bi saxale kër yooyu yëpp suñu borom ay mu awwalaat la asaayir yi taawil nañ ko taawil yu rafet xanaa bi lay bañ nañ koo taawil ñoom ñu gën a bari ci salaf saalix yi mu'tasila yi ñoom taawil nañ ñenn ci xanaabila yi ñu ngi dal ci kaw achaira yi ci ne dañoo xaw a ñu doog mu'tasila ndax dañoo dañoo dañuy taawil abul hasan al ashari kii la woon mu'tasili la woon bu njëkk xanaa bi mu toog nëbbu ci këram tëju weer ak fukki fan bu mu génnee mu ne gis na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu génnee ko ci ihtisaal mu génnee dem sa jàkka ja xam na li mu ne woon yëpp génn li mu doon ci mëtabu ihtisaal ihtisaal nga xam ne dañuy yee xel ak falsafa génn ci ba set ci dellu na léegi mu ngi ci mazhabu imam ahmad ibn hanbal nga xam ne mooy mazhabu salaf saalih teewul nag ñu gis yenn yoo xam ne bu mu koy ñàkk a taagi bu mu ko taagi ñu waaw alxajar la sot yeminu laay fi ardi xanaa bi lay taagil nañ ko ndax buñ nee fekk xajar la sot bu ñu ca kaaba ga mu di daj kenn mënul ne ci loxo suñu borom xaw ñu taagil ko ñu taagil waaw bisimilah mu ngi ne mutakalimoon yi xam nga achaire yi bokk na ci mutu boo jàngee ilmul kalaam fas ko boo defee ji daal ak kenn mu gën laa mu yey la nga fekki ko ca xalaatam day mujj doo toog fenn te fenn da ngay waran doo ko changé waaye nag di leer moo de am na ci yoo xam ne faw ñu tàyyi ko mu du ñàkk achaire yi daal ñu ci ahlu sunnat lañ bokk waaye ñoom ñooy taaw yi taaw yi nit dafa am yoon kon ilmul kalaam dañ ko indi ngir ñi nga xam ne seen xam-xam xóotul noonu ak seen xel falasife yi bëgg leen a nax ba yàq seen i pas-pas wala di génne leen ci islam boo gisee Ghazali yi def takfir Ibn Sina ak Farabi que ñu bari sax ci ñu mujj ñi ñu si jànkat yi dañu daan dal ci kaw Ghazali yi ndax dañu leen def takfir waaye booba dañoo gisagul woon yenn seen yenn ignorance yi nga xam ne Ghazali sonn na ko Souleymane Dunya boobu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon dal ci kaw Ghazali bu mu defee takfir ak Zaki Mubarak bu defee takfir Ibn Sina Farabi man gis naa ci seen i taalif yoo xam ne moom mënuñu bàyyi def takfir xëy na ku mel ni Ibn Rushd moom nga xam ne dafa gëmoon Platon te Platon ko gëm a gëm bu nga xam ne jullit bu dal ci kaw Platon xam mu dal ci sa kaw ñu def ko takfir mooy ki ngeen di daan borom xam-xam bu waaye dafa nekkoon fëletul léegi loolu parce que nag toujours day def taasir ci nit ki day sonkral raisonnement nga Ghazali comme dafa jàng falsafa da taalif ci dafa def ci moom taasir ba nga xam ne tubaab yi dañu naan c'est un philosophe malgré lui maanaam bugg la nekk philosophe ay philosophe ak philosophe la maanaam daal taasir fa c'est un philosophe malgré lui mu ni faasqan bi aw maamuman wala koo xam danga koo roy fekk maamum la woon ñuy ko misaal rek dafa ñëw fekk mbooloo mu julli mu ànd ak ñoom rakka ñooñu seen mën dem mu continuer di julli kii agsi rek xamul lu mu julli xamul lu mu kàbbare daal di kàbbar si moom fekk ba mu sëlmalee gis ne moom kat maamum la woon wala mu wax ko ne ko dafa roy yooyu yëpp julli mi ngi day baax wala xaw ma xam wala aji toj la nga xam ne njàppam toj la ënta am ma su fekkee ne tey na ko dañ nga moom aji toj la bi
waaye si wàllu man dama ci dëgg benn kii. ñu wax ni par exemple bu fekkente ni maanaam yaa ngi julli. nga am ngelaw su biir. bu fekkente ni dafa jëm ci ci ci suuf. ñu ngi koy seete moom fekkente ni am na def na nguur maanaam def na bàkkaar wala mu leneen xeet bu boobaa dëgg am na waaw bu ci laa ñaareel bu ci benn am dafa mën ngaa wis li tax ñu loolu ah musique waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu naka la ndax boobu warul ne toj la du toj mu ne toj na waaw waaw bu ñu wóoree rek wóor na maanaam bu fekkee nag lew am na ci benn tegtal bu la wan ne wóor na te ñaar yooyu benn amu ci
waaw waaw amul bruit yëguloo ko amul bruit amul sama trace aji toj la ji in taamara fekkee ne toj na ko dafa toj la ba noppi kàppar wala mu nekk si biir julli bi mu toj dégg nga nga continuer daal di moom ñu continuer julli nga continuer roy ci moom dégg nga ñëpp li seen julli am waaw وتذكروا في أثنائها وعمل عملا منها إلا إن تذكروا فيها وخرج من مجرد التذكر فلا تتلو عليه ولو جمعة بشرط الاستخلاف بقي مفهوم لأن من جزء من عشر أمني وعلم ولا مخم تمه أجرا مخم loolu ci moom yàqu julli bi toj na dégg nga fi nga xam ne moo koy roy mu xam ne toj la wala mu xamal ko lu ko jiit zon na ko mu tuur ndox wala yooyu mu roy ko wala daf ko fàtte itam mu ne boo gi aadisi aju la an tukki wul si farata koo xam dafa am gàkk maanaam dafa am laaba boo xam ne tax na farata bi du ko mën dañ mënul sujjóot wala mënul ko koom ñu mu roy ci kooku matalul matalul rukk ponk yi moom kenn sant ko ndax mën ko yow mi ko mën nag nga roy ci moom mu neex waaye gis naa rukk yi aw ilmin wala xam-xam dafa tëlee dafa lot ba mu mën a indi ponk bi wala mu lot ci xam lan mooy wéral julli ak lan mooy tax julli yàqu mënu koo xam nga baamu nga ne fu nit royee ci aji lot ci mën a indi ponk wala ñàkk ko mën koo xam rek sa julli yàqu na mu ne ah illa ka qaa kal qaa'id dana deme ni aji yekki bin si ci dem kooku fa jaay isal waa ji dafa feebar ba mënul jóg taxaw muy gapro mënul taxaw wéeru mënul taxaw bañ a wéeru muy gapro keneen kii tam moom it loolu mooy àttee moom it mënul taxaw dafa war a gapro gapro mënul aw bi ummiyin wala mu roy ci ummiyin mooy illa ka rek daal moo ci dagan te mu jëlee nañ fekkee na xaari um ak jàng ak nañ ko mën a xari fatiha ak saa mu roy ci ki mënul jàng mënul fatiha
dama la laaj ko dama ma ko juru benn koo xam ne kii kilifa la waaye ko mën na wax waaw te ñu ma jàng ba am ci waaye ko ñu jëlee mu dem ci kanam maa koy xam te mënul wax waaye ñu dugal na kenn dugal man nag ci wax dëgg yàlla bëri ci wax déedéet ah ëpp naa de ëpp naa de kilifa la nag waaye dañ ko la ne xamal ndax njàng mi ponk la fatiha farata la ak taxawaay bi ndax dañ ñu ko yeral bi yëpp mu noppi ba sama man na mu def ko ci rakka yëpp
ko ci dégg dara rek
aji dotam dagan na ah lu si ba bi rek lu lu lu waaw waaw moom waaye nag ak kilifa la moom moom day nga jiitu ci loolu moom day nga jiitu ah
léegi fii waa ji dafa ñëw moom xam xam bi sax waaye dafa ñuy gis ne li ci mbooloo bis mu ñëw fekk koo xam ne kii moom mun na julli waaye mënut a jóg ndax koo xam ne kii tànk yi mënut a jóg waaye nag moom ci moom xamul bi xaw luy dund kon moom foog mu di mën a ko bëgg koo jiite moom ki nga xam ne xam ci biir moom nga xam ne dara cëram yëpp mat na waaw moom waaye ñu xamul bi moom al ilmu bii mu fa la aaju rek kële moom am na xam-xam bi waaye moom mun taxaw waaw dara kenn li xamul dara mën naa way ci moom du ko mën ndax ki nga xam ne xamul dara xam nga ki mun la jóg doo jógam ak taxaw kee ci roy ci moom du koo xam ne loolu mu xamul dara si biir du ko mën a waaw lu ñu waxoon ci aji julli wa xayra jël sa tënk kenn nag mu xamul dara si julli moom du xam bu defee bu bu soppee du ko xam moom du ko am seen lay wuti keneen li nga xam ne ku mënul fàtte
day ñu ci mu rëy day ñu war a ñu ñu jiite kenn moom ñu lay ci man boobu ci loolu ay mbir yaa yaa yaa yaa loolu kooku mu la ci ci ci bi maanaam ci bañ a bañ a ay sàmm di sàr teg loo xam ne suuf rek teg lu mën dara sàr amul du ñu am yooyu ñëpp dañoo ci julli léegi ki nga xam ne nag affaire bi ngeen di moom.
ki nga xam ne bàyyi mbooloo bi benn njëkk nga julli façon.
kooku julli am na julli ñee nag amuñu julli ñee julli ñu dañu war a julli moom nag julli na mu leen fekk ak julli waat ñu wëree leen mbooloo xanaa fekkee ne moom gën na julli woon waaw wala nga def salaatul muhaadaat li ñuy tuddee salaatul muhaadaat da nga kabar doo yéene roy ci moom da nga jàng sirran fatiha ak saar ànd ak ñoom ci ci amaal yëpp seen waaye su demee biir bi war a julli xam nga.
foofu la problème bi daal ni kon وبأمنية ومن يفكر مقام الأجدام وقارن ولا أجدام بقراءة بكقراءة ابن مسعود رضي الله عنه من جانج إمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه kooku yëpp dañ ci waxoon mbaamuwaat abadan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ne fa ida qudiyat salaatu famdu fi l-ardi wabtagu min fadlillah wa ilaykum tasiruun te yonent bi salaa sallam moo ko ko jàngal wa abdin wala jaam fi jumuatin si ay juma wa sabiin wala xayr moom kenn watu teeral bi xaal ci fard ci farata mooy wa bi xayrihi mooy ci lu dul nag farata nga xam ne dafay naafil la mu topp si mu ne kon tasixu dina wér wa in lam tujzi doonte doyul woon itam wali mu ne bu fekkente ne du farata bu fekkente ne dafay naafi la mu ñëw topp ci xale bi wala ki jàng jàng imaam ibn Mas'ud Abdullah radiyallahu anhu wala ku ñu moom te ba muy am ci juma mu ne dana wér ak limaanam donte doyul woon tam ci tàmbali bi alal rasul te def tajwid ibtidaa an fi naf wa imamatu wa isrihi jaizatun fi salawaati alxamsi wa xayri dégg ko de mu ne waxal yàlla ndax bilaahi ndax dana yàqoo julli ci roy ci aji yàq maanaam fekk mutlaxan ci maanaam ci buy buy buy julli moo xam ci faatixa la wala ci xaar wata tegu aw wala moom kay du wér bu fekkente ne yaa xam ne mu yàq ci faatixa ci faatixa rek la bu fekkee ne dafay yàq ci saar yi te faatixa mu di ko jàng-jàng bu wér ndax kon dana dana wér wala du wér wa bi xayri mumayyisin ndax dana yàqu itam jullit aji roy ci koo xam ne xàmmeewul bayna baar wa raari xàmmeewul leen ndax kooku itam moom it mu roy ci dana yàqu wala du yàqu xilaaf ki nga xam ne dafay yàq mun nga xam rek ku topp ci moom da nga baax mu xam yàq yi ci fatiha la wala du ci fatiha maanaam yàq yi day soppi maanaa bi wala moom kay bu dee ci saar bi nga xam ne sunna la taxaw na taxawaay bi biral na wala yàlla la benn sunna la bàyyi te xëy na yàq yi mënu ko bañ dana doy wala moom it kay du doy muy am ci fatiha muy ci saar yi yëpp a ci yem rek wala ak ki nga xam ne itam bi xëy mu may si koo xam ne dafa roy ci koo xam ne mun la ràññee diggante voix ak voix moom it dana doy wala du doy xilaaful am nañu ci wute bari mel fu mel ne Tunis dañ leen di faral di gaawal voix ak voix dañ koy tàqale naan mushaalim wala xayru mushaal bu ñu ne xayru mushaal nga xam ne voix la bu ñu ne mushaalim nga xam ne voix kooku nag xam ne sukk am na am na werante bu fekkee ne kooku xëy na lamiñam moo am ayib du mën ko waaye ñu mel ne wala fi nga xam ne ñu ko jàngaloon ñu mën ko bu tayee ko loolu day ak bu ñu baax waaw wala laali man leen xam ñu ko jàngaloon ñu mën ko ah loolu waaw wala baali waaw waaw bu fekkente ne yow sa lamiñ moo laaj wala da nga am lamiñ woo xam ne mënu ko benn lébu ku ci lébu baal am na yoo xam ne mënu ko wala am na itam yenn ci xeet yoo xam ne am na yoo xam ne mënu ko ci xarf yoo xam ne mënu ko xam nga waaw li ñuy wax ay possibilité daal ci linguistique général maanaam cinquante cinquante possibilités yi am nga xam ne langue bu ci ne xëy na am na ci yu ay morom amul am na si nga xam ne langue bi ñuy wax possibilités yi ci am yëpp dafa soreet dafa def munaafara dafa munaafara ak yenn ci possibilités yu am ci arab wala mu am ci beneen langue ñooñu buñ leen ko jàngalee dana jafe pour ñu mën ko wala nga xam ne langue bu nit ki moo am ayib mën a dox ci accident wala mu judduwaale ñooñu mën nañ mën nañu nekk maasur ñu ñu ñu nangu seen ngànt daal ñu jéggal waaye ki nga xam ne moom dara jutu ko te bu ko jàngee man ko waaye jàng ko moom moom am na toor man yaakaar naa ne fekk am nañ man maxaarif wax dëgg ku kooku waru ko jiite ki mun maxaarif kii wax wala laa leen wala kii yooyu kon
dañ si tëj tëj bi moom mu naan wala tu wax baax wala tuksihi laaman wagaa وجيز لعاجز حالب لغة المعبد لعاجز من كوكو العاجز عجزا طبيعيا مطلقا عجزا طبيعيا لا غلصا
suñu dina la rek baax wala laal ñu ko moom bu ko waxee baax na ñu mën a dem ndax yéen suñu xelal leen rek سيلو سيلو بلال اه بيقولوا باسكو بلال حبشي لا سين لانغا ابو تشا منكو ما منكو باسكو لا برو مونغي دك سي عرب يي اي اي ديزن داني دي واخ ak ñoom dégg arab ne ñoom li ñu wax am ko da bu ñu xam xam ni ko ba ba ci mënu fexe ba tudd ci do loolu moo tax man sallallahu alayhi wa sallam mu ne siin bilal siin siin siin siin bilal siin indillah dégg nga waa du baax ma tudd waxtu ci waxtu fii ci Ibrahim ka xaruur yi ba demee ni ka xaruur yi waaw kooku ci xawaari ji la bokk mooy la place boobu mën si buñ xawra xawra mooy fi nga xam ne fi sidna Ali yebale sidna Abdullah ibn Abbas fu mu defoon tey ñoom mu naqsha fu mu leen fekkoon fa ñu gàddaan tey rey ku fa jaar منسوب لها قرية من قرى الكفر خرج بها قوم عن ساعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقموا عليه في تحكيمه أبا موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهما وعلى معاوية في خروجه على علي وكفروهما بالذنب من كدر وقتلهم الإمام لقتال شريف من التكفير بالذنب لي ترى أهل السنة خمنا داكورون جي معتزلة sax aguñ ci parce que ñoom dañ ne am nañ suñu benn mutilité jullit bi mooy bi defuñu ko jullit defuñu ko yëgal xawaari ci nag ñoom ñoo gën a tegal ñoom te ñoom jullit mooy yëgal jullit bi mooy pour ñoom yëgal loolu moo tax pour ñoom ñu def takfir sidna ali ak sidna muawiya nga daga nga xeex ak ñoom nga xeex ak ñoom waaw kooku mu mel ne laa salaata li saakini masjidi illa fi illa fi jamia mu mel ne alxajju arafa dañuy wax ne balay mat dëgg yool bi mat dëgg lu mel nangam waaw alxajju arafa bu fekkee ne taxawaayu arafa rek mooy aj kon ponk yi ci aj yëpp nga wàcc ko tawaaf nga wàcc bi nga xam ne farat la ak bi nga xam ne ponk la dégg nga arkaan muy tukkal al ihram wa saayu uquuf xarafa laylatul adha wa tawaaf léegi ñeenti ponk yi yëpp arafa benn rek la ci bu fekkee ne def nga arafa def loolu yëpp amuloo aj kon alxajju arafa jubluwuñ ci ne arafa rek mooy aj jubluwuñ ci itam ah kii boo xam léegi xadis bi waaw am na benn xadis bu ne kii waaye kooku itam def naan sax xadis bu wérul la kii mooy muy mooy wala muy naan sànq wala muy def naan bi mu koy def nekkul dëgg dëgg atikam ñi ne dañuy di li imaan di teg bu paree mën nañ ko ko delloo mën nañ ko bañ a delloo waaye kooku it ay commentaire la yoo xam ne su suuf fu wóor li am daal moo di bu nekkoon waxtu ba mu koy def ngëmam yëpp fàddu na maanaam teewul teewlootul yàlla dégg nga teewlootul mbugal teewlootul bàmmeel teewlootul fay te teew teewlootul dara loolu mooy ba mu koy def nekkul dëgg dëgg aji gëm
kon saa fekk bi bi jàggeen ki ma ki ma sa mooy rek déedéet ki koy def ki koy def ki ma sa mooy te tuub ko xam nga sarti tuub kooku du tuub ko du du faasiq ki nga xam ne mi ngi koy def faasiq la
waaw man surtout da damay nit ñu koy jàng ci arafa yu jëkk yooyu jàng yi wax ko ñu dina dina ko yërëm ñëpp dañuy wax naan dañ naan keef alkubir yaa ay ñu loolu damaa yaakaar ne xale bi ñuy jàngal muy ji waaw kañ bi dëgg mu xam ne war a waaw war a bàyyi daal di war a fule woon rek waaw war nañ ko jàng lépp koo xam ne lii dañ jàng ñu beer mi ngeen xool lii dañ ko ba moom ñu jàng ndax tey gi ñu fi yoo xam ne boo xoolee daanaka ci biir ci biir ak yooyu al ku biir dañu la ko biir ay dara ñu xam dafa ñu ay liggéey dafa ñu biir ak li la wax waaye ñu déedéet loolu yëpp day naan ñu jàng beer waaye lii moom ngi dañu tax day dem bay kan bi ko wax de kan bi man ko kaan moom dégg la wala fi ne kaan taniwul jabar jël
jàng ko loolu dañ jàngalul da xam-xam dafa jàng dafa xam moom xam nga koy waaye du ci xam muy tekki du ci xam dara
waaye Ibrahima bi mu ñaan arab yi kooku du gën la ko xam dafa wax ci biir kay waaw kay loolu sax moom def bi arab du lenn dañ benn wax wala fi wala fi rek waaw dañ la
am na benn passant boo ma ko doon sàllifa waaw wax ko yaram di wax xaritam man waaw waaw waaw sëñ bi waaw kay dañu mënoon a def seen méthode yooyu waaw nga xam ne même alphabet boobu ni ñu ko créé di wax dégg nga ay diminti la yooyu bu ñu demee ba nga xam ne nag léegi ñu ngi ay veqee kii di bind ak yooyu beneen dégg nga technique seen ñu amati léegi ay ndëgal boobu dañ koy wax njommoor ay ndiminti boobu ñu ne nga paak dégg nga saak ñu ne ngaax ila axiri ba yooyu yëpp seen takk yi ñuy kile yooyu nga xam ne daanaka mooy seen ilmu rasmi li ñuy wax ilmu rasmi ci alquran xam ne kaan yi seen takk yooyu ci la ñuy xam ne rasmu quran yi maanaam la graphique quran ba nga xam ne dañ koy mën a bind duñ mën a tudd maxaari xaraf yi duñ ko mën a tudd moom waree waaye daañu xam baat gën nañ koy bindee ci kaw seen takk yooyu ak seen wàññi yooyu boole yi ñuy def maa ngi ko wax ci benn bi ne man dañuy xam xam-xam boo xam ne dina leer waaw waaye dañu wax ni wax ne dana tax ñu wax ne li ñu wax li ñu wax ne bu fekkee da ngay dugg ci ñoom ñu daal waaw waaw da ngay jinne daf lay joxe liggéey jinne daf lay joxe.
waaw mais leer moom booba du dindi. booba dañ lay wattuloo. dafa am ay rayon yu ay yoo xam ne boo génne boo duggee ci leer boo duggee ci leer waaw wala nga jóge ci lëndëm bi jëm ci leer bi du gaaw daal dañuy war war war ko waaw war nañu la bala lu lu lu waaw waaw waaw boobu li mel ni lan misaale yenn ci ahadis ak yenn ci waxi xukamaa yi ñi nga xam dañ koy jël alaale tax defe ne ni ñu ko wax rek noonu yu mel noonu fekk na dafa am waxin woo xam ne ngir ñi muy wax la tax mu waxe ko noonu ngir toll leen ko seen niveau daal xel toll comme ni sa daal wax nga xam ma asal am bay amul na am kenn ala qabri uqulihim ila axiri yonente bi salaa sallam nee na amul kenn koo xam ne da ngay wax ak nit ñi ci luñ xamul lu dul nekk fitna ci seen kaw loolu tax ñu xam dégg nga mu ngi nag kon xarur yooyu itam moom it nga roy ci ñoom ñoom ñi def takfiir Ali ak Muawiya ñoom nit nañu ñoo xam ne ñi seen biddaa dafa garaaw te dañoo ñoom ñoom lu lu bon a bon la ñu def ñoom ñoo raw murji ay ak murtadila yi sax murji ay murtadila ak fi mu am ah ak ak sidna ak Muawiya ibn Abi Sufyaan maa ngi mu bëri nañu parce que ci jamono ji ñu toll.
waaw di nga ñoom it nag loolu yëpp jaraat na al saxaaba ñoom ñoo ñàkk xam lislaam rek ñàkk dégg lislaam waaye benn saxaabi yu benn saxaabi yu waxuma la takfiir waaye waaye nga diinat ko rek lu garaaw lu mag la lu mag la non seulement daf taxawul ci kaw saxaabi bi la waaye ñàkk sàmm te ko war ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
ñu taarixul islam sax parce que ci seen xilaafaan yooyu naan mu ci maam te ñu ko kii di jàpp.
waaw wajib al imsaak amma shajara wajib al imsaak amma shajara ñii ay nit la ñoo xam ne dañoo jàppee saxaaba yi comme ay nit ñu ordinaire comme nii ñaareel bi orientaliste yu ci bari ñoo ci entraîné ñi te duñ ko yëg te ñoom orientaliste ñoom ils regardent l'Orient avec les yeux d'occidentaux ñu ay dix-huitième siècle pour ñoom seen société boobu la nga xam ne bu fa nit defee nangam nii la ko jubloo pour ñoom bu ko nit defoon ca feeg nangami junni ak ci beneen société bu wuuteeg bi ak milieu bu wuuteeg bi ak ay pas-pas yu wuuteeg yi ak aada yu wuuteeg yi dañ koy daal di nañ ko jàppatee rek lañ ko daal di moo waral ñoom ñu change changement bu mag liñ njëkkoon di bind bu yàgg ay kayetaan yi italien boobu bi Washington monsieur Casanova ko ñëpp ñu daawoon bind léegi seeni sët gis nañ sax ku ko gis gis nañ sax ku ko gis c'était Casanova Mohamed El Affaire du monde pour moom nee na Mohamed sallallahu alayhi wasallam dafa jàppoon ne du fi jóge ba ci fi àdduna bi àdduna di tukki nit ñi te sukk ko ci dara dara ba noppi nag daal di gis ne wa maa Muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum alaa aqaabikum mu ngi fi te day weddi li mu wax mu daal ne aaya jooju dégg nga saxaaba yi ak innaka mayitun wa innahum mayitun saxaaba yi ñu Sidna Abubakar moo ko forcé mu ne sakk na ba tey fàtte na yeneen aaya laa yaxillu laka wax na wala an tankihu azwaajahum min ba'di abadan loolu wane woon ñu ne saxaaba yi mais ñoom dañu réeré woon orient bu méttee méttee méttee méttee bari nag ay taasir yu ñuy def ñu influencé ci ñii di lire rek lu njëkk te duñu xam xamuñu xawaayid yi jànguñu ba ci jaaruñu fi ñu war a jaar daal lay wañu amoon ba dugg foofu ba xeex ba ba seen doole rek yóbbu leen fa kon lay woowu dootu am te kon dootuñu fa war a nekk moom dañu waxoon ne nit yi wàcc nañu sharia fee dugal nañu ci lislaam loo xam ne jaamu xërëm la ñi ngi jaamu yonent yi di jaamu shérif yi di jaamu ali yi yooyu dégg nga ñoom ay yéefar la ñu nekk seen jullit ba ne loolu moo tax ñun ñu xeex ba rey shérif ak sëñ ba fa nekkoon loolu moom Mouhamadou bin Abdoul Wahab ak bàyyi soot moom ah loolu dem nañ sax ba gëmatuñ ko waaye mooy ngóob ak mooy seen politique mënuñu ko bàyyi ñu ci bari na xamuñu te mu ne bari na ko ulama yoo xam ne gëmuñu ko waaye pour sàmm seen place xaw ñu les gouvernement bi ñu masla gouvernement bi ñi jóge fii nag te xamuñu ci dara ñoom buñ ko nee daal ñu defee ne loolu moom dëgg la ci ñoom ñu koy wax suñu xam ne yoo xam ne xaay dañu koy gëm ah dañu koy gëm xam ne ci dara ah di jóge yoo xam jeex na dañuy weddi loo xam ne da nga koy gis mu nekk saxiixul Buxaari wala muslim wala nga gis ko ci alquran xam ne am na si ñoo xam ne sax seen jàng demee moom ndax jàng alquran la ci livre yi ñu indi yoon nag gaa waaw xale yi këpp ci nag di ko liir gëm ko defe ne dara la te ñoom boo gisee ni leen dugal foofa ba toppee histoire bi xam ne dëgg dëgg dëgg daal am ci tam nag xikmatullaahi la ndaxte xëy na bu dul woon ñooñu fa nekk jullit ñi ci seen ngëm ak seen xit surtout ñi nga xam ne gëm nañu affaire wilaaya daañu fa def yoo xam ne sharia du ko ndax sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha tabaraka wa taala la yuayidu umur hada din bir rajuli fajiri suñu borom dana aar islam ci jëmm joo xam ne ka coorle saay saay rek bu di ko def malgré moom si loolu bu ñu bindee seen tubaab bi nga xam ne soo da ngi leen di bëgg a rey di rey ñu mel noonu ak di leen tëjal di leen def fi nekk te mu tontu leen xasee boobu ahlal madinati min ni sarmadan lakum am fi suñu kaw ni abdullah jaarat mu ne leen bi ñëwee ñu indi lettre yi dañu yéene yéene ay ndaw la ñu woon ñu wax ko ñu leen taxaw leen ma laaj suñu borom ba mu demee bi mu dellu seen leen ñu ngi ci dëgg de waaye dëgg bu rafet la lañ nekk li ngeen di bëgg nag ñooñu jógee buñ fa borom xamal na ma ne jógee buñ fa waaye nag yéen ñi ñëwoon loolu ñuy def dana leen du leen dal duñ leen ca boole suñu borom dana leen jëm si waaye nag jógee buñ fa jógee buñ fa mooy xam nga ne aar nañu aar nañu lislaam te jubluwuñu ñoom ngóor gee leen intéressé ak li taxoon ñu am lay pour mën fa dugg waaye nag loolu itam dana dindi yu bari dindi yu bari ndax boo seetee fi mu nekk dëgg la ko sàcc ak li nga xam ne yëpp ay xudur la ñuy tëraloon foofu rek lañ koy doxale boo ko seetee ba léegi foofu rek lañ koy doxale ci adduna bi te itam suñu borom mi ngi leen aaroon ci foofu ñàkk dara ñëw fa lu tax tubaab yi war leen a dem di leen coloniser muy désert bu tàng bu amul dara saxu fa dara bi yàlla dogalee colonisation ñu weesu ko ba amatul suñu borom feeñal pétrole bi suñu borom fi kam moom yoonu bi lay la fi néeré li naa la fi dem bismillah nan dem mu ne mu ni kon waa reba mut na bi wax ci wax ci xarur yi fekkee dafa rey ci mën a xar mu ko ak kon xarur yi bu kuree ci lépp ak taw ak dagg ci loxo naa si wa achellu ak aji semmi ci loxo mu ko loxom wow noonu daal wow waa arab yi yul wala nitu sàmmkatu àll mu ko dëkk ci àll ba daal ba nga xam ne duñu roog nit ñi ay aada day sol lu mu gàtt la mu salte yooyu ka li xëy yi mu jiite keneen waaye mën na jiite borom way xara way aqra doonte moo gënoon a mën a jal gi boo ba tey si ne du salasin borom salaf xam ngeen salaf xoroy ak ay góom li sax yi mu jiite aji wér ci ñàkki góom wa imaamatu man ak imaanu da nga xam ne yu ko ko def na si ko képp koo xam ne rek neexunu daal ba dañ koy duñu sax dugg toog jaxasoo wala yooyu rek sib nañu kii mu jiite dégg nga wala dara dox seen diggante bu nga wa taratu bu xasiyin ak nekk ilimaan bi raati bu koo xam ne ku ñu tàpp la mooy ñoo ñu nekk màkk ci kii ci bërëb bi ñuy gàtte waa bërëb bi ba maabunin wala maabun mooy ko nga xam ne daal booba nag filmé yi seen njiite nekk amul ak njiite filmé ko ñu ñëw ñu ñëw mu ne wa wa axlaqa ak aat mooy aat mooy wala di jinan ak doom jooju la ci naturel ba ma ci wuti xaali ak ku ñu réeree mbiram ki nga xamuñu maa nga xamuñu maan xamuñu sax ak jimi tam wóorul lool xamuñu itam lu muy jëf xamuñu lan mooy pas-pasam xamuñu bidé yi la wala du bidé xamuñu faasa xam ku ñu réeree mbiram daal moom itam boole nañ ko ci yooyu wa abdin ko ku ñu moom te jàmm di am mu nekk raatib wala ilmaani bi maa bi fardi ci farata wa salaatin maa wa salaatin bay na ba tey sib nañu salaatin julli bay na asaatili ci diggante kenu yi kenu yi nii xam nga am naa jàkk yoo xam ne kenu yi day def nii rang nga nekk ci diggante ñaari kenn bi sib nañ ko ngir nee ñu xam nga day am ay dénk yu ne ba mu ci aj dàll yi ñu ne sobe si def ci ruus ñaareel bi itam ñu ne mooy bér bu seytaan yi lii di sore na moom am solo déedéet yëpp taxaw ñu wax waaye ko leen wax ba ko ñu gën fële ak ñu xam naa xam xam na sib nañu jullee fu xat foo xam ne doo mën a taxaw bu baax wala fu tàng wala nga sonn lool bu mu loo matal kii bu baax ngay ngay julli yooyu yëpp sib nañ ko ci julli waaw mu ne nag kon aw amaama limaam yi wala nga nekk ci kaw ilimaan ci kaw ilimaan yi mooy li ma doon wax fii nii kay ñu jullee ci fee te fee feesul dañ leen dañ fële ci kaw ilimaan yi te fii feesul ñu yéen ngi def loo xam ne lii si dañ ko bu feesee mu bilaa dara ci dégg bilaa dara la ci def bu feesee mu dana ñëw ci ابتداء من أقرأ كو خمنا بأسفل بأسفل السفينة نيتي كجنا سوفي شي قال لي نيوي ما تتخمن في على هم لا تكو du ko gis mu ngi rëdd ci ci mel que Abi Qubays naka ndoj mu mën a benn montagne Abi Qubays ki nekk ci suuf bu koy rey. waaw ñu ne ca kaw xam naa nag loolu garab yi la dafa xat. yëggali ma ma tax dëgg man de damaa digg digg digg digg rek digg rek yàgg Abu Xubayd islat la julli ak julli waaye da nañu saa diggante ay jigéen mobilat ak safaanam julli jigéen di julli ci biir ay góor imaamatul ak jiite bi fës ci gàtt bi laa ridaa in ci lu dul làmbaay maa ngi dégg parce que nag lu woo ak naa fi la woo moom ilimaan bi ci mixraab yi ci mixraab bi bokk ci ñu suble aadati jamaatin ak baamu mbooloo ba adal raati bi mu ne ni day asina ba digle woon maanaam permettre na ko daal bu ma xam nga xam nga asina wala ak amara dañu naan digle du benn gën asina moom maanaam mooy permettre rek amara nag moom moo ordonne la ko digal la ko daal waaw moo war a fi am ñu ko waxee maye na ko waaw waaw تبعا للسلف والجنات وأبرز بشير والخليل وخوفي بالمنع ظاهر قوي مدون به لا تكون أسرع في سبسه مرتين إلا مسجدا ليس له إمام رحيم من جبره فله الجنة من جميع هذه
àddina wala foo ñeel na ko moom limaan raati bi ak jamu dajale mbooloo ci julli suñ jama an dimu daje woon na fa xëy na ko dul moom keneen dajale na fi mbooloo jëkk ko julli ànd ak mbooloo bu ñëwee mën naa moom moom imam moom mën na dajale mbooloo moom julli qabla in lam yu axir lem du yeexal julli bi kasiiran lu bari wa xaraju génnat nañu nag ñoom ñeen woon illa bil masajidi salaat dañu leen dañu dal di génn ñoom bu imaam bi dee taxawal mbooloom rek lu dul ci ñetti jàkk yi màkk Madina bayt bi kon fay sàllu julli jaajum afzaadan mbir mu ñuy way wéet kenn ku nekk daf ko julli bopp ndax dégg nga ويصلون جماعة يقولون إن يخرجون إلى الزكاة ويصلون بها أخذة بالمنيوية كان وسجل البوك إن دخلها من تبون تبون البوك وقتل كبر وبتسجل قتل كبر قوس رأي من كبر فل ولا مات بالنسبة للزكاة وفيها من كفر ويوجد مدون الإبليس لنا لكن ترفعها وجهك خارجه لكن رأيك سجاك جوايا خانك تبتي waaye wax dëgg ki la de lënt loof na ko baax na wala ñu voilà bismillah aywa sëñ maqaama
daa roy ci julli bi amaan ci juróomu at bi silmaxa bi mu jiite te mu xaalifin ak aj yi wute ci furoo ci furoo yi masala yi dafa am ay furoo ak usul usul yi mooy li aju ci tawxid nga xam ne ci la ñuy defee tabdiya nit wala takfir aju ci wujub billahi wa qidamuhu وبقاؤه ومخالفته للحوادث إلى آخره واختياره وصدور كل شيء عنه تعالى لمعتزله ووتعه القدر والقضاء الإيمان بهما أصولي موياي كتي ووتعه bi ñu doxal li ñu defe takfir nit te amul du am lay furoo yi nag ci masail yi ñu jàng nga xam ne ñu ngi koy doxale ci xadis yi xadis def ñii yi jotul ñii dégguñu ko ñii ñi taawile ko nii ñi taawile ko neneen ak masala yi nga xam ne gisuñu ci xadis gisuñu ci nas quran yi sarix nga xam ne ittihaad lañ ciy def yooyu moom mooy yi gën a woyof moo tax mën nga cee wuuteeg nit benn nga nekk xanafi mu nekk maliki wala shafi wala xanbali wala ci biir jiite moom mën nga jël ci ay mas ci ñoom ay masala imam shafi sax daana jëlee ay masala ci muxtasile yi waaye day fekk loo xam ne du laal ci atisaal di leen wutale bu mu xaalisi na aji wuute ak nit ki fi furoo yi ci furoo yi dégg nga ni ki aqsam xum si cheikh yooyu ñu jàngoon lu xam satu wa alkana ak aji dotam aji dotam mooy ki nga xam ne yenn ci xaraf yi mënu koo génne comme imam Bilal Seydina Bilal alayhi salaam كان العين تقول بالشيء المعجم ويتلوه والسين المهملة مخرج واحد أشهد أن أشهد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم دين بالله شيء عند الله wa maxduudin ak koo xam ne dañ koo xadd dañ koo gitanal dégg nga benn dafa naan sàngara wala yoo xam ne dana aajo wala xaste wala yoo xam ne aajo na la gëtam ñu gëtam ko ci du tee bu fekkee ne tuub na day mel na ñeneen ñi wa inni nin tu tuumi ma xaw ma ko doon wax tuumi ma xam nga ne ay nin loolu ba mu jëdd ak ku ñu jëf gisaabal mooy ku wàññi ko daal ñu ne faw ak fu ma état bu mën a nekk mu ne ah illa an yastad ndare boo tar na feebar ba bu boobaa nag fan yu naxa na soriya ko trop bu méttee trop ñu di ko seexlu wala muy bañ a wàlle wala deratam di laal di wala ñu dëkkal ko wax fa biin ak xaleel bi gis ngi ci kanam nag xale ñaari xale bu ñu julli kenn mu jiite moom wala mbooloo xale kenn mu jiite waaye dama it saaqiman ak ñàkk takkook nga xam ne alaa yéen ni limaam nekk na ci lay jooru imaam awi saar yi wala mu nekk ci càmmoñam mu mën a bañ a takkoo ak bi man ki nga xam ne xàgg koo nekk na ci wetam ki nga xam ne nekk na ci bu fekkente ne da nga fekk limaam bi ak benn maam moom ba day julli ci ndeyjooru ilim te gis ci ñu mu bari taxaw moom wala ki nga xam ne moom moo nekk ci ndeyjooru ilimaan mu bañ a taxaw moom wala mu bañ a taxaw ki nga xam keneen ki nga xam ne dafa ñëw di roy ci seen gannaaw wala mu dellu gannaaw bu fekkente ne imaam yi dafa nekkoon ci sàppee si li ki tey ñu ñu ñëwaan fekk benn dafa jàpp ne ke leen war a jiite wala ki leen jiite war a génn wala leen imaam bi mooy mooy def taxaddum wala kenn dañ ko mu dem su fekkee nag moom dafa taxaw kàmbar ki ñëw mooy dellu gannaaw bu fekkee ne keneen ñëwul donc gannaaw bi mu dee ñaar dañu war a tolloo mu nekk ci ndeyjoor ilimaan bu fekkee ne keneen ñëw na day dellu gannaaw moom lañ gën a sopp daal dégg nga mu ne dana dagan maanaam mu ñàkk a takkoo ak ki nga xam ne moo sus ci moom maanaam ki nekk ci gannaaw ilimaan waaye nag bokkul nag li gën a li ñu waxoon rek iman bi moom du avancé kooku moo waroon dellu gannaaw mu bañ a dellu gannaaw ibn xasuko wa salaatu munfaridin dagal na ba tey wa dagal na salaatu munfaridin di lig aji wéet muy sëgg xalfa saftin ci gannaaw sàppe sàppe yi ma kii ñëw nañu benn am nga lu ko waral wala déet sàppe yi mat na sës fee sës fee nga ñëw ci gannaaw yow kenn wala sàppe yi des fële nga xam ne di jaay ba foofu mën na laa fàttu raka wala yu mel noonu wala yeneen nga daal di dem julli ci gannaaw dagal na moom itam xam naa xilaafu la loolu laa lay war a doon waaw mbooloo mi kay nga am nga yeneen mbooloo fekk yaa ngi doon ci limaam yi dégg nga walaay ci waaye bu mu xëccilee moom it aadam kenn foofu ko mottali ko mu ngeen nekk ak sàppee su ndaw mu déedéet ndax waxoo moom bu ko defee xata un ak may la min huma ci ñoom ñaar ñëpp moom waa ji xëcce jóom na ci xëcce di xëcce ki nangu itam dellu si ngir di julleeg moom mu ñu nekk ngir ñu mottali sàppee moom itam nekk ci njuumte te si kanam gannaaw daal bu gisee yër yër maanaam diggante waaye bu kenn ki warul dellu gannaaw lu dul moom iman bi rek la woon keneen ñëw du loolu
wa israam wa dagan ba tey israam wala ci dul daw baax laxaa jëm ca sàppee sa bi laa xama bin kañ lu dul daw bi laa xama bin ci lu dul ñëkk du ñëkk de maanaam daw daw bu xaw ci noonu nga xam ne comme bu doon xam comme naan dafay jàpp daw daw la mën dana dagan waaye nga ba ñu bañ ñu raw la waaye nag dagaru nga daw te waax waaxu mu tàng daal dina jàll wante ndax daw dugg ci julli dañu koy tere yàlla daw ndax du teggin boo ba tey dagan na xatula aqrabin rey jiit aw xaarin wala janax bu masjidin ci jàkk waaw xam naa janax bi doom day fekk nga jekk ko rek mu jegal nga dóor ko benn yoon waaye nga xam ne dafa gaaw jiit ji moom yomb na xëccoo xaarin bu masjidin wa ixdaaru sabiin ak dawuk ndaw bi ci jàkk wala teewal waaw déedéet bu fekkente ne xam nga am na ci yoo xam ne seen garab laab na ñu ci xel ak màtt kooku mën na ko rey boo ko reyee deret bi sa mujj tam du wàññi dara féeg ñaawul def naa masala moomu la sax na am na ci ci imam Malik gërëmoon ba di ko pour bëgg koo xëcc mu day nga xam nga ñaari kii fi naan def taxdis wala ñuy jàngale kii bi day fees ba kër ga ko ci gudd nit ñi déglu see ñuy jàng pour mu bëgg koo jegeel te du man ñëpp toog mu ne ko kaay fii mu wax ko masal ma bu ma ne ma laajte ne ndax boo demul baraax yi al xas nga xëf ko waaj la da nga ne intafaxasha da ngay jël intafaxasha ko ne ma ah yow mi may gàggat nag bu ma gàggee wala ma am def te ñëw nga jege loolu rek comme comme boobu la def waxat si ko muy dana muy di gën a dégg parce que ba am na bari bi jàngukaay yu bari pour nga jege kii jàngale ba gën a dégg baatam bu baax buy misaal wala muy rëdd wala mu tomb nga gis ko dina di jafe léeg-léeg ndax léeg-léeg ñii teewal fay bari mu ni kon waaw wa ixdaaru wa dagal na ba tey ixdaaru sabiin teewal ndaw ci jàkka ma ixdaar dina fi ndaw bu dee ci fas ñu teewal la ci jublu laa yàbb si koo xam ne du fo ba yëpp fu te muy fegu itam isa nuhiya wax loo xam ne tere nañ ko ba indi ci xalel sidna li daana am doom jigéen bu toll nii xale mu si jàkk bi fi jigéen mu toog laal si lam daan tungoom ibnu xasan si kab si sujjoot teg si dëgg yëkkati ko gis na kii bi si jóot si na asan moo yéeg ci kawam mu yàgg jël si jóot ba mu wàcc mu bañ ko daaw kii wa basqun ak tafli bii ci jàkka nan nan lay taflee si jàkka maanaam wax na la ne bu fekkee ne ñu ngi julli masal mu war a tax ci malaana mu fan lay sani teg na ci suuf mu ne in xosiba ndem jémbaraay aleef na jàkk ji jàkk ji dafa nekk ay kii nekkul karo wala dér boo xam ne dafa maase xam ne soo ci tefle day tax nit mën ci toog est-ce que technique dagan na nekk ci jàkk waaye su fekkee ne su taflee jàkk ji dafa mel ne ay tëdd yi wala muy jër la karaw yooyu taflee mën na ci dëgg wala mu toog ci nit ki mën na amee jàngoro aussi fekkente nag xas baa la maanaam ay jëmraay la su damee ko ñi nga xam ne kii day sarax day sarax noonu lu tooy day sarax day sarax jàll xas si ba gën a jëmraay la xas si ba aw wala mu tafli bopp wala tafli bi mu di ko def taxta xasiri yi ci suufu tasraf tam te yëkkati ko ci teg bi wala des bi ci suuf su ma toog bu mënul ñaar yëpp xadam yi ci suufu dëggoo su ma yemee ni bii ak mu taf ni feetu ndey joore ko foofu ne dinaa ko seet lu tax ثم بصق يمينه ان لم يكن به عبد فان كان به عبد بصق تحت قدمه اليمنى dafa gàtt rek kenn def na en général ci càmm wetu càmm ko mu mën a lay joor maanaam ci kenn fu ma toog bu mu def si lay joor amaana ko mu tax li ci kanam wa dagan na ba tey xuruuju mutajallatin génnut mutajall li aydin jëm ci jullit ayd wastisfaay wala jullit baaw naan wa shabatin ak waxambaane bu jigéen mutajalla mooy jigéen ñu màggat ba nekk xay sa boon xam ne yàlla nekkul ci kenn kenn nekkul ci yoon mun dina dagan ba tey mu ne itam shabba bu mu nekk ko rafet trop ñu génn li mis jiddin waaye wala yuqda li ful atte ko de ala zawji ak su borom këram bañee ne du génn duñ dañu ko par force atte nañu ñun waral la su génn waaye ku mu génn déedéet mi ngi wa ba tey wax dagal na ba tey iqtidaawun roy iqtidaawu dawi sufunin royu boroomi gaal bi imaamin ci iman ñu nekk ci gaal gi gaal gi dafa teer wala nekk ba ci waax bi wala mu dégg ko trop mu roy ci génn iliman rek nga xam ne bu waxee daañu ko dégg dégg nga ñi ci biir gaal gi di ko roy xam nga gaal gi mën na fi mën na am ay nit yu ci waaye mën nañu nekk groupe boo xam ne dañuy dégg ñu bu ñu déggee ñu julli ñu ne allahu akbar wala ñu kenn daañu ko dégg ñu mën a roy ci moo gën ñuy génn di xuus di dem di wuti fuñ jógee ji wala ñuy jóge wax naan kenn ko faslu wa ba tey dagar na faslu moom moom ñu fasale teqale maanaam maamu façon ni ko fasale ak ilimaan bi nahrin ci lu mel ne ko am yoon mooy dex saxiib bu di aji ndaay imam bi mu nga nële dex gaa ngi nii waa ji nekk si geneen tàkk bi di ko séen muy roy ci moom di aw tariq ni wala yoon wi nekk si diggante bi mel na mbedd mi booba tey dagan na ulu maamumin kawek maamum maamum mi fi mu nekk mu féete kaw iman bi nekk day maamum bi te du iman bi dagan dégg nga ñu wala bi sax xëy na donte kéeg la woon it kéeg koo xam ne mooy tera waaye ci lu jullit jumaa la nga xam ne daal teewul daal li muy féete kaw teewul dana mën a gis imaan bi mën a takk ay taqallubaatam su sëggee su taxawee su toogee su sujjootee waaye laa ak suur laa daganul di ak suur safaanam imaan bi moom mooy yéeg ku kawe di julli maaw yi nekk ci fu gën a suuf donte bërëb bu ñu yëkkati mu toll nii la it imaan bi bu fekkee ne moom moo nekk fu féete kaw dana xaraam maaw yi mën nañu nekk fu féete kaw imaan bi nekk fu féete suuf bu batarat yàqoon na bu ko defee imaan ba xas ci imaan yi ci jublu imaan bi bu maamumin wala maamum ma ku ci nekk ci kaw ñu ci def nekk ci suuf comme ci doon mën a mujj yi ca loolu la alkibir yi fekkee rek dafa nga ne rek chef d'état la wala président wala naan la mu jiite nekk ca kaw ñu sàkkal ko loo xam ne mu féete kaw ñu taxaw wala moom mu ànd ci maamum yi ñu yëkkati ko foo xam ne foofu ñu taxaw ko loo xam ne ñeneen ñi duñ ci baa doon duñ ci sañee yëpp wala yooyu daal ñun kon fekkee ne rëy dugg la ci ñun ñun daal woote dara de waaw ñu ne ko ak lu yëkkati ko di tuub tuub na illaa bi ka sibri maanaam lu doon nekk yoo xam ne nii la toll dafay ay tawaay ba tey dina dagan kon man ñu moom mu ne waa jaam yàlla ndax yéegi dina dagan ba loolu in kaa ngeen nekk na ma alimaan ànd ak ilimaan de taa ifatun ab kuréel imaan bi du moom rek moo jullee ci gën kawe waaye am na ñeneen ñu ci xëy na ñu kawe noonu ñëpp ci xëjul yeneen maamum yi julli ci suuf ndax loolu kon ñu dagal waxali bis in kaanum alimam saaki dégg mu ni tarat bi am nañ ci dénd dénd mu ñu la léegi ne naka noonu ka xayrihim maanaam ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ñii roy ci moom dégg nga waaye ñu ngi leen ci ñi nga xam ne ñu ngi ci moom ci ñi nga xam ne daal amuñu dara ñu koy am du dagan mu ni nag mu ngi teg ba mu sam na am wa dagan na roy ba tey ci mu sam noonu ak yi dégg rek mooy kii nangu kii jot li mu ne allah akbar allah akbar ci daaw ak roy bi ci moom ak dégg doo dégg ilimaan bi bu ne allah akbar waaye kii jottali daa dégg baax na aw bi ruyatin wala ci gis maanaam ci saabu ilimaan ji wala maamuuma wa in bidaari doon bi maamam bi dafa nekk ci kër ilimaan ji ne ci jàkk ji itam mu di ko gis bu charte ndax la demir charte roy ñeenti foofu mooy yéene dégg pour pour nga am ngëneelal roy nga yéene roy mooy ibnu asir xam ko la ni yeetu xob ci daal kasaal ni maamu fi xawfin wa jam'in dul xasin ci soxla bi maamum day yéene roy imaam dana yéene jiite ci salaatul xawfi ak julli boole ñaari waxtu julli ajjuma julli istixaar dégg nga kon xilaafi limaam loolu wut naag ilimaan moom ci julli ordinaire yi du yéene nekk ilimaan wala bu janaasa tamit doonte julli janaasa lay ma ne comme julli yëpp daal amul moom fu mu ci yéeneen lay jiite na illaa jumatan wa jaman wa xawfan ñaasi moom it gàtt na ya toog ci gàtt daal li ma am fi xaw si ñëw in jumatan sax la kii ah est-ce que indi na kii islam ah waaw mu ngi ci kaw waaw mu ngi ci mu sax la fan ak ku ñu wutal ku ñu bu la bu imaan bi boree wala dara gaar ko loo xam ne yàq na julleem charte julli matatul muy génn ki ñuy bu max pour mu jiite wala muy demal boppam na yéene na yéene jiite mu nirale ci kafi al jamaati ka fadli ka fadli jamaati naka noonu nga ni lal mbooloo itam moom itam ah ba nga xamee ne ilimaan dafa yéene ni muy yéene moom itam masalan ngëneelal maanaam jiite moom itam naka noonu la ngëneelal mbooloo maanaam bu yéenee ngënee am ngëneel am am jiite dana am ngëneelal mbooloo li gën a bëri mu ne waxtaara kan na moom kan في الأخير كما كانوا المجرمين وفرد الجماعة خلافا للسرير lu gën a bëri ci gars yi mooy masala mi waxoon bu fekkee ne yéene na jiite dana am bëri rek waaw pour kon imam la xam yi moom lan mooy xalaatam nee na moom
ñàkk yéene gi ñàkk yéene gi lii waaw ñàkk yéene gi waaw mu bët mu ko xañ gën a mu ko waaw waxtaar tànn lox mi fi la xiri xilaafal ak sëriñ wa musa wa dagat na ba tey musa waatu yemoo ci salaat ci julli dégg nga dañuy sëggandoo siggandoo sujjootandoo defoon imaam men maamum fi salaat la ci julli maanaam bu musaawaat ak boo bokk lu ñuy kooku ak ci musaawaat la wax musaawaat moom maanaam ñu yemoo julli gu ñuy julli ñu bokk julli goo xam ne moom la ñuy julli bu kee dee julli takkusaan kii ñëw di war a julli tisbaar mu xam ne ñeenti rakkaa lay julli ñoo yem leen mu roy ci moom du am julli mu ne wa in bi addaa in donte ak jox la woon waqataan ak ak fayitam aw bi zuhrayni wala muy ñaari tisbaar yéen a bokk julli ngeen di julli tisbaar ngay julli moom ñu julli waaye min yow mel ni si ñaari gis la kii tisbaaru tey lay julli kee day fay tisbaaru démb donte naka noonu itam kii daf koy julli joox kii daf koy fay ba tey rek duñu du doy ñu ne faaw mu ne laa naftoon rey naa fi la xaw fa farde kii naa fi nag ñëw fekk ki julli farata yow da ngaa bëgg naa fi la rek waxtu da nga danaa fi la te lay julli tisbaar nga daal di kabar ci moom kabar topp ci moom loolu rek waaw wala yantaqilu du toxu nag mun fari dina aji wet li jamaatin jëw ci jëm ci mbooloo naka noonu kal aksi dégg nga ci yéene roy gi ndax passé na waaw doo ko yéene maanaam du du yéene roy dégg ngeen ko
du yéene roy ilman ci waaw mu ñëw ci gannaaw waaw
fekk tàmm na julli tàmbali woon ne waaw dafa tàmbali woon dafa ci ci digg biir julli gi la ne dasna ali fawati mahaliya huwa awal salaati kalaat si naka doon safaan ba maanaam mbooloo mi ki nekkoon ci mbooloo mi moo wëlbatiku di julli julli boppam dem na ba mu yàgg benn waajee ko doyatul wala dara xew mu daal di fas yéene julli julli boppam bu defee day yàqu فرد الإمام في البداية هذا الثاني waaw limaan ji moom bu fekkee ne ni da ko fekk si bu fekkee ne na ñëw kàbbal kon mu doxoo ci jullit kenn jullit mbooloo ba fum waaw wa fi maridin mais kon lu ñuy wax ci aji tawat aji fe iqtala ko roy na bimis li ci aji feebar ne moom fa saxa te ñu wér ci diggante bi ndax kon day toxu wala du toxu xaw la ne am nañ ci ñaar sax maanaam ki nga xam ne dafa wér mu daal di am mën a jóg day topp bu toxu mutaabaatun ak topp fi xaraamin ci armal maanaam war na war na xanaa du dagan wa mutaabaatu wala mu salaami wa mutaaba wa chef la ko kañ
waa ji waa ji lu romb ci lu romb li moom dafa dafa ñëw ci dafa wér dafa feebar kii feebar muy topp ci gannaaw ba seetlu wér ci diggante bi waaw kañ daal di mën a jóg waaw day continuer day continuer du jóg ci roy gi mu doon roy du daal di nekk mun farit daal di motul julli moom dong ko def mu ni waaw kon ci yoonati waaw waaw ba tey ba tey wasaat la ci roy mutaabaatun topp ilimaan ji fi ihraamin ci armal topp mooy njëkk la ko def da ngay nekk ba mu armal nga soog a armal wasalaamin da nga nekk ba mu sëlmal nga soog a sëlmal kon bu fekkee ne njëkk la koo kabar lii sa atte yàqu na bu ko njëkkee sëlmal mbiram yàqu na mu sax da ko war a koy da ko war a koy fal musaawaatu yemoon nag ak ilimaan bi ci armal ak sëlmal ak yooyu yëpp moom itam wayin bi sakkin moom musaawaatu yema rek doonte sikki sàkk ndax jiitu ma ko wala jiitu na ma seulement moom muy yéeti ci kee topp ci kii dafa topp ci kii wala moom rek ay julli mu tëlatu aji yàq aji yàq la mu julli mu ni laal musaawaqatu du caay génne màngante maanaam da nga koo topp rek topp boo xam ne daal da nga koo seere def très près waaw duñ kii rek daanaka moom waaye moo la jiitu daal xam nañu ka xayrihima naka noonu digul arma ak sëlmal itam ni ki ruqwa ak sujjoot ak yëkkati ko jógee ci yooyu ba tey waaye laakin sabkuhu ak tereem li ñu tereem moom man ak ab jiitoom li ñu tere la moom maanaam moo ci yi nga xam ne yooyu nga xam ne moom imaan mi maam moom jiitu ci imaan ci biir yooyu ñu waxoon ممنوع مع الحكم بصحة الصلاة من أخذ فضله معه بأن ركع وسجد قبله وانتظر maanaam jëkku koo armal jëkku koo sëlmal waaye rukkoo ak sujjóot bi mu xam ne moom moom a ci yem ci war ko cee topp bu ko si jiitoo it dir nga du yàq julli tere waaye tere nañ ko mu ne wa illaa su fekkee nag jiituwu ko kon dafa yemoo moom kon ci bépp na ko waaw wala ummi wal dañ ko yàlla wa umira wala lan ko um wa umira la war doon dem loolu ci sara bi de waaw wa umira waaw wa umira diggalee fët na raafiu ak yëkkati boppam di aw ji ci delloom na dellu léegi su jot na muy def nii far gis ne ilimaan ko kiréwul ko def dellu kat léegi kat dañoo na am yar rek ko xam
kon day bëgg mel ko bëgg xënd su jot suñu bopp
wala ko mu daal di dëkk rek nan kon ñu ngam mu dellu in alima ne mu xam ne idraakahu ak jotam qabla rafihi su fekkee ne yow nee nga siggat gis ne mu ngi sëgg nga xam ne mën nga sëggaat fekk ko ci waaye boo xam ne day dal di siggi bala ngay delluwaat jigaluñ la dellu foofu waaye laa deekul digal maamum de ak dellu in xafada dem wàcc na dem suufeel na dégg nga maanaam alxafdu bu ko sujjóot nekk koo def rek fekk ilimaan di àggul ci xafdu bi maanaam njëkk nga koo def nii waaye jëkkuloo ko rukkoo jëkkuloo ko àgg ci ko kooku duñ ne ko ne jubaatal xocc ba ilimaan dégg nga xafdu def xafdu wax di ko soppes na taqdim sultaanin jiital sultaan sultaan mooy lan buur mooy lan buur mooy lan buur Mali
buur mooy comme atam de sultan mooy waaw sultaan asan boobu buur la asan de lan la moom malik sultaan daf ko am fi sultan mooy sultan à domaine quoi sultaan comme sultan à domaine xam nga su province la rek boo xam ne nii dañ ko kana Oman bi nekk kana comme Oman.
waaw
waaw ku tànn ko rek.
waaw sëñ nan lañ ko donc xëy na Mali.
nan lañ ko pare seen mu def tari seen nan lañ ko nan lañ ko pare sultaan nan lañ ko pare sultaan xalifa moo koy fal léegi xalifa ak malik ak sultaan te ñi ci des amir mooy comme gouverneur yi ki de ku nekk ci province yi comme par exemple Hajjaj ibn Yusuf doon nekk gouverneur ne Amar ibn al-As Misra yooyu xam ne xalifa bu ñu xalifa moom dañuy jaayante moom légèrement dans les choses dañu prêté malik moom lu ñuy doon na tele foofu wuti na fi xalifa te xalifa moom papa man ni man ni xalifa te bàyyi ni ko doon xalifa wuti naa buur buur moom moom famille lay doon nga xam ne ku fi nekk rek ku fi sës rek yaa ko war a doon am na si ñoo xam ne même bu dee jigéen moo koy nekk sultaan jullit ñee koy fal ñooy jaayanteen moom kii xalifa xalifa sultaan moom xalifa bi moo koy sos maanaam dafay nit ku am indépendance daanaka lay am waaye nag dana prêter serment de serment d'allégeance ci buur bi bare ci turu xob xalifa bi laa ko ci turu xalifa bi xutbaam ak yëppam ci la koy def maanaam day nekk daal taxta imratihi booba ñoo daan xam nga amir amir moom yi booba xale bu ñu xalifa gi xam nañ ne xalifa bi fi déwlu sàkku ji duñ ko woon daal maanaam tur yoo xam ne dafa mel naka ak fal yaa fi nekk rek léegi di digal nit ñëpp ci rek moom moom la tekki baat boobu boobu moom lañ ko jëfandikoo woon moom xalifa moo tax ñun nag ñoom képp koo xam ne nag dañ la fal ni ñuy kii affecté gouverneur kooku mooy amir maanaam mu ngi jóg ci ma amoon mel na ko tey bu ñu daan def dem ci xare wala mbooloo dañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci amir kenn foofu nañ jëlee amir comme moom sidna Aboubacar moo ko clé woon ko investir woon na Aboubacar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñëwul woon kenn moo tax sidna Aboubacar kenn waxu ko amir xalifa lañ ko wax ndax moom jullit ne daje mu doy leen mu jox ko seen mbir ñu sukkandikoo ci ay masala ak jëf yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu bari Sidna Omar moom amir la ndax Sidna Aboubacar moo ko def taayin moo ko kii fal moo ko daal investir daal moo ko investir waaw gannaaw Sidna Aboubacar Sidna Omar ku ci tegu Sidna Ousmane est-ce que amirul muminina nit ñi am nañu habitude depuis Sidna Omar di wax amirul muminina waaye Sidna Ousmane du woon amir amir la woon ci wet ci ñeneen ñi Sidna Omar tànnoon pour ñu nekk asaabu shura kon mel na digal bi la ñu tànn ci ñoom kenn waaye ba tey dañ ko tànn xalifa maanaam xalifa la nekk sidna ali même chose moo aytu na bi sufyaan nag daanaka dañ malik la doxal Umar ñu ngi bëgg ne xalifatu xalifatu rasulillah ñu ne bu ñu toogee mu ngi dugg taawilam la waaye kon itam taawilam la waaye amir moom wal wal maamur moom mooy amir baat moom loolu la tekki sidna Omar it bi ko sidna Aboubacar désigné digal bi dafa ñu topp ko xam dëgg parce que bu c'est-à-dire maanaam waxi ku ñëw ñu ne amiru amir di moom dina gudd te ko nit arab sax duñ ko wax wax nit duñ ko wax moom lu war waaye amir moom xam nañ ne rek mooy kii kii kon xalifa am na amir nag li mu tekki léegi buñ ko seetee ba tey ci baat bi mooy gouverneur mën na nekk itam man mën na bañ a nekk itam gouverneur waaye mooy koo xam ne ci pour investir la moom nga xam ne lu ci lu karab bi sultaan moo gën a woyof mbir maanaam moo gën a xat lu mu moom gën a xat lu mu moom waaye xalif moom buñ ko waxee ci bi yëpp mboolem ruqatul islam yëpp moo leen ñu ñun ay dissident mel ni que xawaarij yi nga xam ne ñoom si des rebelle ay rebelle lañu woon ñoom dañoo rebelle woon contre Sidna Ali ak Sidna Muawiya ibn Abi Sufyan xale yemuñu ci loolu ñu def leen taksiir ñu def leen tabdiya ñoom xawaari ji ñu ne ñu ngi ko taqdim sultaan yi sultaan bi nag léegi kon rawatina xalifa xalifa mu taxul ñu wax moom du nëb bu rek waaye sultaan bu ñëwee ci biir limaam ci alxaadir bu ñëwee rek ñi mën a nekk limaam bari nañ fi luñ bari bari luñ ko ëppoon xam-xam luñ ko gënoon it kooku moom sopp nañu ñu jiital ko ndax daraja
mais xanaa su fekkee ne jullit la ba pare.
ah taxul ñuy wax ba pare it comme comme li xew rek li nga xam ne mu di jullit lañu waaye
maanaam fi mu toll nii lay kër yooyu daal mu ngi ci biir.
lay dégg ñooñu ñun taxul ñuy wax buñ daan wax sukkandiku boobu itam xalifa bi moo koy désigné wala mu digg noo xam ne xalifa bi fekkoon na ko fa waaye bi ñu tuubee dafa dal di jébbal mbir mi yëpp kooku mu bàyyi ko fa waaw xalifa bi bàyyi ko fa. waaw. waaw. ñu mujj ñi am na ci ñoo xam ne dem nañu ba di ci yéegal ay repères ci université yi kenn xamul daal. xam nga yooyu yëpp dañoo fonte muy seen jégg rafetul suma gannaaw bu sultaan wee rabb man jënum borom kër bi kër bi nga xam ne fi la nekk di jublu ci moom kër bi tekkiwul nag ne lu jubal moo war a jiite ndax mën na délégué keneen waaye moom moom xàq ji xam la ba mu ko neexee mën na tànn ko neex mu jiital ko waaye daal moom moom xàq jiite gannaaw bu ilimaan passé ñu te ñu jullee ci këram kon xam ne du jàkk bu ñu nekkee ci kër benn waxtaan ko waxtu jàkk moom moom ñoo jiital julli wal mustaajir ak aji luwee moom lay jiital alal maaliki ci ka ko moom kër gi diwa ko moom waaye dëkk bi ki ko luwee moo fi nekk kooku bu ñu dajee ci dëkk ci kër gi moom la ñu gën a jiital waaw jiital di ko ñu matal
suróot yi dafay boo fekk boo fekkee loolu dafa fekk suróot yëpp matal ñëpp matal nañ ku ne mën nga jiite mu des nag léegi xàq ji parce que bu fekkee ne am na ku matalul xàq ji moom matalul charte yi moom amul amul ko yoon joxu ko ba mu ba mu di ko kii du xàqam li nga xam ne bi borom xàq yi la ñu seet ku ci jiite ku ci teg ku ci teg ku ci teg ne yow buñ dajee loolu ab dan gis nga mooy mooy aji fii bi bu fekkente ne xam nga abdu mën na jiite dañoo sib mu nekk maam raati te sibe rek la waaye ci mu dagg comme raati nag noonu jigéen kooku na moom mënul jiite xaw day day kii keneen moom jiite ko was tax la mu wax na ko sax waaye mu ne moom nag wóotalat na suma zaidi fiqhin gannaaw loolu nañu sa fiq ñun ñëpp yemee ci loolu kenn ci ñoom moomul kër gi kenn ci ñoom luyewu fi kenn ci ñoom ñoom bi ci sultaan dégg ak ñu ne nag kon dañuy seet ci gën a xam fiq sant abdu abdu waaw waaw ah kooku de beneen masala la abdu gaa fi mu nekk moom amul moo gën di yoon ndax fii bi bi bi bi abdu yi amee itam amoon nay problème ndaxte ceddo yi dañ daan dawal jàpp daana jàpp sax koo xam ne doomu buur la xëy jaay ko te fekk amee wuñ ko amin wu sharia nangu benn dawal jàpp moom bu ñu ko waxee rek moom mooy fëkk wala nga jëndee ci koo xam ne jëndee ko ko ci koo xam ne moom itam am ko amee léewul ndax sharia duñ bëgg buñ ko bëggee dindi loolu sax danañu yàggal waaye kii jàng maqaam la ñëwul tey xëy na dafa ñëw tey sharia li mu teree sàngara ñu bari dégg nañ ko nga xam ne arab yi jaxasoo na ak seen dund nii boisson alcoolisée yi ni mu jaxasoo dund tubaab yi xam ne mënuñu ko bàyyi mënuñoo jaxasoo ko moom ñu tere leen bu julli jotee leen daan màndi xam ne kon bu julli jegee mën nga mot bañ a màndi bu julli jegewul it mën nga naan li fi boo xëyee émission kat mën nga naan ñun ñu tàmbali di ko jéem a muñ tuuti tuuti yàgg ñu tere leen naan tere nag yàgg ñu tere leen nag sànga innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali cheytaani fajtanibuuhu la'allakum turhamuun dafa nekkoon ne ويسألونك عن الخمر وما يتري قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس boobu njëkk naa tere ñi am xel ñi am xel rek ñoo mën a déggee ci wa ismuma akbaru min nafihima tere ci gën bàyyee ci gën wala nga tàmmale affaire istiabaad itam charia daf ko doon dindi sakk na borom buntu yi mën a amee jaam ba mu des benn benn rek moo ci dagan mooy ku ñu jàpp ci xare te xare li ko def tabrir li ko justifié mooy ba léegi li ñuy wax indemnité de guerre boo attaqué benn nation xeex bi nga gagné tu es tenu de rembourser li nga xam ne moom nga yàqu waaw loolu jullit bi rey nañ ay bakkanam yàq xaalisam sànq taam sonal ko ñu war ko indemniser bu ñu leen jàppee foofu itam du kuñ jàpp rek ci xare bay jaam nga déedéet bi ñu ci kanam ci kii day wax ñu ngi koy tënkee diqani yabun ñu ba tax a xam fi jiri alqatlu limaan gisee ni ñii dañ leen a war a rey ndax borom pexe leen te buñ leen bàyyee histoire dañuy indi dañuy campagne campagne de dénigrement contre l'islam dañuy def nii dañuy yàq ñu seet na la xam daal ñii daal rey ci gën limaan ne nañ leen rey ñu leen te man wala ñu baal leen dem leen te fidiyatu wala ñu laaj leen jotu leen ku indi fukki jën ñu bàyyi la ku indi saxum dugub ñu bàyyi la ko indi fukki saako gerte ñu bàyyi la axri ko indi ñaari nag nang gis yëg léegi at mu nekk lu ngeen bay daanu jël fukkeel ba wala ñaar fukkeel ba wala nangameel ba ñu d'accord wala ñu def leen istirqaaq mooy bu mujj istirqaaq ba ci itam njëriñal ki ñuy def istirqaaq moo ci ëpp moo di ci lislaam ndax jaxasoo ñoo jullit ñi léegi bu ko jullit yóbboo ci réew mi mu gis ni ñuy julli gis julli bi xam mbiri lislaam xam rafet rafet yi xam bonu kéefar jaxasoo ñoom gis seeni jikko gis li lislaam digle ak li mu tere xëy na mu daan déglu dañu ci gën a bari yéen ñu ko defee dañoo tuub ba pare bi nga xamee ne lislaam sakkal bu nit ñi mën a def istirqaaq doomu aadama yépp ba mu des jihaad jihaad itam mu tëral juróomi issu yoo xam ne bu ci nekk mën nañ cee jëflante kii bi ba benn bi rek moo ci jàpp ko jaam yóbbu te intérêt la gannaaw loolu itam yemu ci mu sàkk ay circonstances yoo xam ne dañ caa war a goreel jaam bu ko defee comme jaam yi yokkootul te fi ñu koy jëlee bariwul te mu ngi wàññiku rek day mujj moo di moo dee kaafaara ak li ngay wax goreel jaam li ñu ciy wax ci ci tuyaaba ak kii yu bari yoo xam ne dañuy waral jullit bi mu goreel jaam yooyu yëpp bu ko defee loolu la lislaam taxawoon pour jeexal ko fii nag moom ñi fi doon jaar sax seeni jaar dafa doy waar xam naa xëy na Cheikh Oumar Fouti moom ko doon waar moom wàllu xam waaye bari na si ñoo xam ne jaar nañu rey nañu ay jullit yu bari bari bari bari ñu bari même Cheikh Oumar Sam ne nit ñi wax yooyu da doy na waar daal fii daal moom daal kii moom moom taq na suuf ci ñàkk xam da daal di nekk handicap ci ñoom daal di nekk handicap te fekk na ñoom te la ñàkk xam la qissa Zeynab bintu Jahsh boobu radiyallahu anha seetee ne leeral na lu bari ci kii bi ci mbiri société islamique ak lan mooy esprit l'islam ak lan lay digal julli ñi ak yan comportement lañu war a am société qissa زينب بنت جحش فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على من حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وطرا وكان غلام فلم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله suñu borom moo ko imposé yonente bi dégg nga ndax ñu ne wa istaqu lillazi an'ama allahu alayhi wa an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi umsik alayka zawjaka wattaqillah wa tuqi fi nafsika ma allahu mubdihi wa takhsha an-nas wa la an takhshahu dafa gudd comme amul temps ay masala yu day waar yu am solo la nag yu yu mat a toppatoo ba mu leer dégg nga ba xam ko mu ni bu gannaaw buñ seetee ki gën a xam fiq mooy jiite su ma bu ko kooka ñëwul xadis yi wala ñoom ñëpp ñu yem ci xam fiq ñu seet ki gën a xam xadis su bu ñëpp yemee foofu ci xadis yem ci fiq ak yooyu ñu waxoon yëpp su ma qiraat yi ki gën a ëpp lu mokkal ci alquran suma ibadat topp ki gën a bari jaamu suma bi sunni islaamin topp ki ëpp ak ñu mu dund ci lislaam suma bu woowee bi nasabin ñu seet askan suma bi xalqin bu ñu yemee ci li lépp ñu seet ku ci gën a rafet bind ku ci gën a jekk bind suma bu yooyu yëpp ñu yem ca di xoluq ñu seet ku ci gën a rafet jikko suma bi libaasin nag borom yëre yi rafet soog a ñëw nee naar gànnaar bi jiite ki rek bëgg a kii waa ji gën cee rafet ay yére ñu kii rek mu daal di bëgg a kii mu téye di ko dellu si gannaaw fu mataka mu ta axiratu maanaam sax suma bi gën a mujj moo fi ñu gën yaa mujj bu ñëwee ci ñëpp rek ba ñëw ci ñu seet nag soog a seet ci dama rafetlu ñoom ñëpp nag in adima dem ñàkk na naq saman in amul muy tere mu mën a war a cité au cours wala sibeet ko sibeet ko wala jàpp cité wastinabatu naqsi wa ba tey xanaa war na la war a def wastinabatu naqsi sopp na waaw ba tey de sopp nañu wa sopp nañu istina batu naaq si sàkkoo wóotalu ki wàññi ko ñi nga xam ne ay chartam am na lu ci manqué tuuti sopp nañu mu nga xam ne mën nañu nag di liggéey moom ba tey mu wóotal kañ dégg nga kon istina batu naaq suma aw kurhin ba tey كان سلطانا هو رب منزل وإن كان غيرهما فلا حق له وكان هو كالعدم نوبري والحق لمن بعده دجن لك من naka nag noonu lañu fopp wuquufu taxaw wuquufu dëkkarin taxaw góor baalirin bu di aji ñu ko waxee di ku mag daal ko puberté ko kii ku majeur ku majeur daal dégg nga koo xam ne dafa roy ci ilimaan bi xel yemee ni fii nekk si ndeyjoor bu ndeyjoor ilimaan bi ba noppi mu bañ a tolloo moom képp mu xaw koo xaw a dellu gannaaw tuuti ilimaan xaw koo tuuti tuuti was nay nii bu ñu dee ñaar ñoom xalku foo ñu nekk ci gannaaw imaam bi wasa biin xalel ak xale boo xam ne xellu na xam na alqurbata jaamu yàlla kal baalixi sappe wa nisaaun jigéen xalfal jami nekk si gannaaw góor ñi ak xale ya wa rabbu dàbbati borom daaba awla mu gën a yey muqaddamiha ca kanam dàbb est-ce que comprendre ngeen loolu wa rabbu dàbbati maanaam ki moom daabati keneen keneen ñëw nuyee daaba ji ñoom ñaar ñu bokk ci war bu ñu kii ne maay jiit maay ni ci kanam dama lay tomb kii ne ko déedéet maa lay tomb moom daaba ji ñu ko yee fii dañuy wax ay xaq rek. waaw bu bu ñu xëccoo ci dara ñu jëndi te ci ñu xam naa ci loolu rek la ko ci indee nag. waaye moom mbirum daabaag kii moom jotee la ci léegi xam naa rek ñi doon wax naan bu ñu xëccoo kii gën a yeeg kii gën a yeeg loolu donc rek mooy benn sile bi ci amatoon yow dégg nga.
mën na ko tas biir fii.
waaw. waaw waaw.
ñoo yëgatu waaye fekk julli jot comme ni julli ci kaw daaba jëlee.
ah moom bu gënee ah moom bu gënee ji jiite moom moo gën a jiite dégg ko de mu ne wala war a aw.
waaye dañ ko jàngaloon sama kii dafa waxoon moom ku dégg sa tubaab. mën na misaal mais rek tubaab bi. dama gën a xam sent julli daal bu julli yàq mu koy mu koy gën a mën a defar. moom loolu la ko tuddee. man la ko kii moom man la ko misaal.
nan la ko misaal bu dab daal muy ku dégg sa tubaab ndax julli mu ko julli mën na dina ko mën a wax. mën na faar moom.
waaw waaw waaye buñ ne war a bu dàbbati. maanaam wala muqaddamiha te daal na ne kon borom julli bi borom daa daaru bi moo gën a yee sultaan bi maanaam daal moo gën a yee képp kon kii nag keneen ki mu àndal rek ci kanamu dàmba ji ma tey na amuk dégg ñu génn ci nag kon sultaan bi rek xalif da ñoom dégg nga moom waaw monsieur damay seet ma xam sa ndax moom misaal wala yëpp rab bu daf ay malik xaa la si akraha li shaxsi kooku moom wuti naa ko waaw moom daal ne akraha li shaxsi rek dàq na li kooku wax mu ni wala waraw aji gën a maandu xam nga al wari o am na ak al awraw al awraw moom mooy ku gën a maandu ko xam ne maandu moom day na waa jigi da dayoo wal adru ak aji maandu rek wal xorru ak ak gor wal abu ak baay wal am ak baay tax dégg nga ñooñu noonu noonu lañ toftaloo آدم عليه الصلاة والسلام يبدأ الله من على خيرهم moo mat moo daaneel ba tey tuuti ñoom ñoo gën a yey ñu dul ñoom bàyyi bi moo gën a yey doom ji am bi moo gën a bàyyi bee ko gën a yey dégg nga yaa xam ne parce que yéen waxoon yëpp xorru bee gën a yey وإن تشاحد ما يمتنك مانام كنا عندنا نايت مرب متساونا ويم كب يم لك كب حق كان كنا نك كان تسمينا أتنا باي سمرم ويا لا لك من ريت خلده اقترعوا من بدلوا من وكبر كبر تكبيرتنا من كبرتنا المسبوق كني راو ميركو ام جيم تيركو وسجود بلا تاخير وكم جانغنو لولو fàttali ci ngeen masal ma booba ñu ngi doon jàng masala mi wax ne fàttali ngeen
ki ki ki ñu jiitu waaw mu ñëw bañ bañ rukoo bi raw